téeméeri aaya ngi ci ak juróom-ñaar fukki aaya ak juróom-benn saar wi madaniya la madina la wàccee ñu gën a bari wax nañ loolu albuxaari jëlee na ci aïcha radiallahu anha aïcha di wax ne a saar wii wàccut lu mooy fekk maag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi nekk amu ci benn aaya ci suratu nisa bu wàcc lu mooy man aïcha fekke naa loola te aisha xam nga ne ñang ko maye yonent bi ci makk waaye ñang ko ko joxe ci madinatul munawwara kon nak kon sari madina ya la ko joxe yonent bi ci madina ci wéru ori ci atum at mu njëkk ma ca ga motax aisha ne sari mom madaniyatu la ndax dara rawul ma ci sari wi ne ya ayyuha nasu yed nit xetu nit ñep la nak, nak itaqu ragal len rabbukum sen borom koku da'wala woote jëmee ci yàlla ñépp rek ñoom la war yàlla mi nga xam ne nag dana joxe lay woo xam ne danga nga xamee ku yàlla mu ne si mooy ki nga xam ne xalaqakum bind na mu leen min nafsin ngeen bàyyee ko ci benn bakkan waaxidatin ba di benn mu di aadama xalaqa mu bind minaa ca bakkan ba zawjaha jabaram ja muy xawa wa bassa mu tasaare min huma ci ñoom ñaar rijaalan doom yu góor katiran yu bari wa nisaan ak jigéen wa taqullaa ragal leen yàlla allazi yàlla bi nga xam ne sax bu ngeen di laajante te sa aloona yéen ngi laajante bii ci moom looy wax nit danga ko naan nang jox ma ngir yàlla wala arxama ngeen ragal bokk gi inna laa yàlla kaana musumoo dañ raqiban di aji fugli aleykum ci yéen wala maaw tafsir nee soo suratu nisaa ba mu jeex kaana yépp lam yazal lay firi musula dañ la kaana yi suratu nisaa yi yëpp nag di firi même boo ko fàttee ba wax ko nekk na it mooy boo nga xam ne loolu lay tekki mu léegi mu ngi jëm ci jirim nu ñu war a jëflanteeg moom mu ne waatoo jox leen alyataama jirim ya am wàllum seeni alal wala wala tatabaddaloo bu leen soppi alxabisa lu bon la nga xam ne yéen a ko moom bi tayyibi ci lu teey lu baax la jirim bi moomoon ngeen di ko weccee wala taakuloo bu leen lekk am mu seeni alal alali jirim ya ila amwalikum ngeen boole ko seen alal yeen ñi ko denc innahu naka lekk gi kaana nekk na xuuban di bakkaar kabiran bu daay ji legi, nag léegi waaye xiftum bu ngeen ragalee ala tuqsitoo du ngeen maandoo fil yatama ci jirim yi fankixu na ngeen takk ma taaba lépp lu teen lakum ñeen leen mel ni saa ci jigéen ña buxaari ak muslim bokk nañ génnee benn wax bu jógee ci urwata ibnu zubayr urwa ne na dafa laajoon nday taxam aïcha radiallahu anha ne ko lan mooy maanaam aaya boobule bu ngeen ragalee du ngeen maandoo cib jéebéer na ngeen takk mu ne loolu mooy koo xam ne dañ koo dénk ab jirim bu jigéen mu nekk ci kiliftéefam am na alal ba buggoo kali mom waye rafetul ba buggoo ko tak fekke fekkee mu rawla ndax alal ja teyit ko tak yang koy lor neena lolou la yalla di wax nan bu ngeen regale du ngeen maando ci koka na ngeen ka tak mune wala bok ben jirim bu nek ak ben way waja tak ko lekkalam bam jeex mu ko nee na loolu itam ci la duggaale moo tax yàlla ne su ngeen ragale ne du ngeen maandoo na ngeen ca takk bu fekkee amoon ngeen benn am ngeen droit ci beneen moo tax mu ne fankixu ma taaba lakum min annisa mas naa ñaar ak ñaar wa sulaas ak ñett ñett wa rubaa ak ñeent ak ñeent almazahibul arbaa ñoom ñëpp dañoo dëppoo ci ne nit mën na am ñaari jabar wala ñett wala ñeent waaye ci lay yem ba mazahibul arbaa waxee loolu dawuda zahiri muy mazhabul xaamis moom nee na juróom-ñeenti jabar yoo xam ne ay góor la nit ki mën na ko tëkk mu ne yàlla moo wax ne mas naa ñaar ak ñaar xanaa ñeent la mu ne boo ne mas naa ñaar tariqul jamci la mu ne wa sulaas ak ñett ñaar ak ñett lan juróom wa rubaa ak ñeent muy juróom-ñeent daawuda zahiri yi noonu lay déggee ñaar ak ñett ak ñeent mu ne waaw atif la mas naa wa sulaas wa rubaa ñi nga xam ne mel na ngéer mu bokk ci ngéerum chia ñoom ñooy def fukk yi ak juróom-ñett mas naa ñaar ak ñaar muy ñeent wa sulaas ak ñett ak ñett waru ba ak ñeent ak ñeent muy fukk ak juróom-ñett ñoom ne nañu noonu lañ ko déggee ndax mas naa du tekki ñaar waaye ñaar ñaar lay tekki ahlu sunna nag ñoom ñu ne mas masna luy maanaa ñaar ñaar kër gu nekk na ca ñaar ne fii ñaar fale ñaar wala boog fii ñett fale ñett wala boog fii ñeent fii ñeent mu ne ndax boo doon ji gerte ñu ne la ñaar ñaar duwul ne lépp ñaar la waaye tooba mu ne ñaar la loolu mooy ñaar ñaar kon nag ñaar ñaar du tekki ñaar nekk fenn mooy fu ne ñaar mën na faa nekk wala ñett wala ñeent loolooy mazhabu ahli sunna lu tekki ne looloo wér mooy bu wax ñëwee ñu firee ko piree mu bari dañuy seet lan la yonent bi def ca loola waaja bàyyi ci bani xëylaan tuub si am fukki jabar yonent bi def na na ko tànn ci ñeent te wàcc ñi ci des bu leneen daganoon lu mooy loola ak wàcc jabar ni méttee kon yonent bi du ko sant koo kuy door a tuub nga xam ne wàcc loo ko jabar sax mën na koo tax a tub bi mu ne ko tànn ci ñeent kon loola rekk ci wér doomu aadama nag ku bari pexe la ku mën a dàgge sant ku bari lay la waaye lii rekk ci wér nag ku def leneen ñu ak sa borom ndax fii ni mën na fee def la neex waaye boo dee yàlla dana dina def lu ko neex rek buur nag ne bu fekkee ne fayin xiftum bu ngeen ragalee allah taadiloo ne du ngeen maando fa waaxidatan yem leen ci benn bi mufassiroona yi docteur Chaltout rahmatullahi alayhi nee na yàlla bi muy tudd ay jabar dafa bind nit xam ko xam ne nit ki mënul yem ci kenn ki bu ci yemee officiellement it fokk am yeneen yu muy def moo tax bi muy lim ñaar la tàmbalee te nag mu ne bu fekkoon ne benn moo jaadoo woon mu ne yàlla dafa war a na njëkk wax benn door a dem ñaar waaye dafa tëb rek ne ñaar ndax xam ne ne benn bi moom doo ci mën a yem fokk am noo def boo sàgg ne te ñàkk sàggan yombut moo tax mu tëb rek ne ñaar ndax mënul ñàkk mu ne ñett wala ñeent Cheikh Chaltoun ne loolu li ko li koy dëgëral moo di ne sharia dara indiwu ci benn jabar lu mooy bu nit ki feebalee ba ñu ragal ne du màndo moo tax mu ne fa in xiftum alla taadilu fa waxida boo feebalee nag yemal ci benn bi euh, mu ne ba tey lan mooy màndo ci ay jabar ndax mooy boo xoolee kii xool kale boo waxee kii wax kii lépp a yem sa xol bi ni mu bëggee kii mu bëggee kale ndax mu ne ndax loolu wala déet mu ne déewal lay du loolu mu ne maandu ci ay jabar mooy boo joxe ay yére ku ne na am boo joxe lekk ku ne na am boo joxe néeg ku ne na am nga séddale fanaan ma mu ne fil mabiiti laa fil wati mu ne li ko tekki mooy beneen aaya bi yàlla di wax naan walan tastatiu an taadilu bayna nisaayi walaw xarastum bi yàlla ne mënu leen a maandoo ci ñi ngeen di denc ci kër ga ak lu ngeen xir-xir loolu mooy li ngeen yaakaar ne mooy maando moom du ngeen ko man mooy ci wàllu xol bi waaye ci wàllu matériel bi nag lañ wax ne na maando li tekki loolu mooy jëfu yonent bi alayhi salaatu wasalaam su amaan matériel da koy séddale mu yem képp mu ne yàlla li ma moom de nii laa koy def li nga moom nag mooy xol yaa xam ni nga koy def kon loolu moo di sunnaam moo tax mu ne wayen xiftuma la taadilu fa waaxida bu fekkee ne kenn ci nga mën a yem aw ma malakat wala boo nga yokk ca li moom na ko aymaanakum seen i ndeyjoor te loolu moo di ab taara zalika yem ci kenn kii boo munta maando wala nga teg ci taara ndax ab taara moom du rawaandike ay droit ci yoonu sharia kon kooku boo doon maando seen diggante yi dafa yemul ak kee loolu day àdduna moo gën a jege day allah taulu ba ngeen jénga tëdde waatoo jox leen annisaa jigéen ñi saduqaati na seeni i can neex la tan mu dig may fayintim na su fekkee jigéen ñi dañoo teeyal lakum ñee leen an cheyin ci dara minu ci can ga ñu may leen ko nafsan ci bakkan seen bakkan teey ca ñu may la ko fakkuloohu lekk leen ko hani an nu ndokkel leen ca mari an mu nekk lu neex waaye suñ leen ko mayut nangeen leen ko jox wala tuutu leen jox su faa way dese xel ya am waalakum seeni alal alati yi nga xam ne jaalallahu def na yàlla kum ñeen leen qiyaaman ngeen di taxawee ko buñ la dénkee kum xelam matut boo ko jox sa alal bu ko bàyyee alali boppam ndax yaa taxawee loola farzuquhum na ngeen leen ci jox ñu lekk fiiha waksuhum ngeen wadd leen ca wa qooloo ngeen wax lawum ñe leen xawlan wax maarufan ji ñu xam nga wan ko ne danga dangaa munta yore sa bopp loolu nag ci ñun la gën a bari léegi ñun ñi mënut a yore seen bopp te te dofunu moo gën a bari boo demoon tribunal tey ana ñaata góor la seeni njaboot di kalaame ñuy dagg ca la ñuy am mu jëm ci dund ba ndax bu ñu ko bayee ko góor ki mënut a yore kër gi ñooñu nag alquran a ko wax moo ne bu leen jox ñooñu alal da ngeen leen jox ñu di ca lekk di ca naan waaye bu ñu ko téyeeti wabtaloo na ngeen nattu al yataama jigéen eh, jirim ya ba xam mag na ñoom déet hatta isa balaxoo buñ jotee nikaa sëy ngeen bay leen ñu sëy fa in bu ngeen yégee minum ci ñoom rushdan jubam xel fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwaalum seen alal boo xamee ne xelam ñëw na li nga ko denceloon kay jox ko wala taakuluha bu leen lekkaale li jirim israfan ngir yàq wa bidaaran ak gaawtu an yakburu bañ balaa ñoo màgg mu jeex wa man kaana ku nekk na xaneen di aji oomal bu ko laal fal yastaxfif na fegu wa man kaana ku nekk na faqiran di aji ñàkk te war a dundal jirim ba na jël ca alali jirim ba nag di ca lekk di ko ca leyal fal yaakul na ca lekk rek bil maarufi ci lu ñu xam fa ida dafaatum bu ngeen jiñee ileem ci ñoom am wàllum seen alal fashido na ngeen sàkk seede alayhim wa kafa doy na bilaay ci la xasiban di aji xisaab leen di mu ñëw ci tashrii xaqi jigéen ak xaqi jirim aw sa ibnu saamitul ansaar yi dafa faatu mu bayyi jabaram ju tudda ummu kahlata mu bayyi ay doom yu jigéen donc doomi bay taxam ya ku ñaan sawit ak irfata nga xam ne ñoo góor gi dee seen baay ak góor gi dee ñoo bokk ndee ak baay ñi bay tax ya te loolu moo doon aadab arab ñu ñëw ne jigéen du donn comme kii moog suñ baay bokk ak ndee ak baay te na fi doom ju doom ju góor alal ji noo jël léegi nag mu kaalata dem ci yeneen tawat dal di ne a awsa day ibnu saamit faatu na man may jabaram am na doom yu jigéen te ne nañ day jigéen du jël ci alal ji dara te ñii nag jamono ji tey bu sey doom yu jigéen amut alal kenn du leen takk kon léegi nu may def alquran ne wali rijaali ñeel na ay góor day nasibun cër lima taraka ci la bàyyi na ko alwalidaani ñaari way jur wal aqrabuun ak jege ñaale ni ki ay bay tax ki mbokk wante wali nisaay ñeel na jigéen it nasibun cër de lima ci la bàyyi na ko alwalidaani ñaari way jur wal aqrabuun ak jege ñaale lima ci lu néew na minu ci alal jaaw kasar wala mu bari nasiban cër la mafruudan bu ñu dogal kon doomi jigéen yi nañ jël ñaari sulus ndaw si na jël ab sumun boo alal ji nekkee juróom-ñetti xaaj ndaw si jël ab sumun ñaari doomi jigéen ñi buñ jëlee sulu saani benn ba cay des nañ ko yónni am naawul am yi léegi nag léeg-léeg miraas dana am am ku ñëw jage néew bi ci bokk waaye sariya joxu ko ci tus kooku noo koy def nit ku dee am na doom ju góor ab jigéenam a ngi taxaw bu néew doole fekke mirage ma alal ju bari te bo bok ki de bok ndek bàyyi te sharia jox ko dara noo def sharia ne na am loo génnee balaa ngaa yow serigne ba mis dara mirage soy la nga am yow serigne ba sa payu liggéey na nga dey sok ñom ci ñu génnee yit lu ñuy jox ñu jégué ñu jégué ñaale ñoo ñi te sharia joxul leen dara ba ngeen jubo ca ngeen lool motax sharia ne وإذا حضر بو فكي فكي القسمة بسدلة ولو القربة برمي جاكي نالي والجتامة كي جيرم والمساكين المسكين يفدك نونغ يفتيو فارزقوهم نين لين جوخ منه تعالى الجا وقولوا نين وقلوا من لين قولا وقم عرفا جن قمنا يو كان ليدن لين كم مصل نغين شريع جغل لين دارا وليخشى نراك الذين ينقمن لو تركوا بن بيون من خلف مسين جنا ودرية اي دوم ضعافا يدايدي xaafoo ñu ragal alim ci ñoom wala yattaqullaa nañu ragal yàlla wala yaqulu nañu wax qawlan wax sadidan ji jub yow sëriñ bay miraas bu ko lekk bàyyi jirim ya yow ma koy séddalee bu ko lekk bàyyi gune ya na nga bàyyi xel ne bu doon yaa dee tey bàyyi si gune yu ndaw am ku def noon ndax dana neex inna lladiina naka ñi nga xam ne yaakuluuna ñooy lekk am waalal yettaama alali jirim ya zulman ci tooñ innamaa yaakuluun naka danañu lekk fi butunim seen biir ya naaran safara wa sa yaslaw na xalse nañoo jaaru sairan safara bu tudd sair bunti safara yi juróom-ñaar la sair ci la bokk jahannama sair xatamatu jahim laza saqara jahim xawiya sair kon benn la ci bàyyi na loolu waaye génnagul miraas ma ngi ci ayatul mawaris aaya yi indi miraas li ko tax wàcc mu mufassiroon yi dañu wax ne saadu ibnu rabi ba mu faatoo kenn ci leen saar la jabaram dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow bi mi yàlla yónni saadu ibnu rabi day xareb uxud la demoon ànd ak yow fa des ñaari gune yi jigéen yi nag moo leen jur seen baay tax nag seen rakki baay nag taxaw na nee na gune yi seen baay deegul ndax mooy seen baay day jël lépp rek ñoom ñu toog te daf lay wóor ne gune yi bu ñu amut alal de lu ñu sey léegi nag lan la yàllay àtte ci ñooñu alquran ne yusikumullaahu dana dénk leen yàlla fii awlaadikum ci seeni doom li dakkari ñeel na ku góor ki mislu xaddil unsayayni kem cëri ñaari jigéen fayin kunna buñ nekkee ñoom ñuy donn nisaan di jigéen waaye faw fawqa itnatayni ëpp nañ ñaar ni ki ñett lañ fa lawu na ñeel na leen sulusa ma ñaari sulusi la bàyyi na ko aji faatu ja wa in kaanat bu nekkee ku jigéen kiñ si bàyyi waahidatan di kenn rek fa lahaa ñeel na ko nisfu genn wàll alal ga wali ab way ñeel na ñaari way juri ki faatu waaye li kulli waahidin dama ne képp kenn minhuma ñeel na ko asudusub juróom-benneel ndey juróom-benneel lay am bàyyit juróom-benneel waxut ñu bokk ko waaye li kulli waxidin minhuma sudusu mi maa taraka ci la bàyyi in kaana ndem nekk nag lawoo ñeel ki faatu nag wala dun doom ndax bu ndey ak bàyyi di jël ay sudus ak muy donnee nii day fekk waa ji tey euh, ku jigéen rek la bàyyi noonu waaye bu waa ji bàyyee nag wala dun doom ju góor kon noonu lañ koy donnalee ñu jël sudus rek dem toog waaye bu doon doom ji jigéen tey bàyyi ji moom day jël la ca des moo tax mu ne fay lam yàkkun bu nekkul la woo ñeel ki dee nag walla dun doom wari soxoo doon na ko abu waawu ñaari baayam rek kon kon day bàyyi ja moom asib la day xaar li des waaye fëli ummi yi ñeel na yaay ja kon asulu su ba de fa kaana bu nekkee la wañeel ki dee ixwatun ay mbokk am na fi ay mbokk te fekk bàyyi newu fi waaye bu fi amee mbokk te bàyyi nekk fi bàyyi bu fi nekkee am mbokk du waaye bu fekkee bàyyi nekku fi ndeya fi nekk ki bokk fa li ummihi kon ñeel na yaay ji sudu suuf ab juróom benn min baadi wasiyatin gannaaw bu ñu génnee dénkaane ya yoosu yi boobu dana dénkaane bi yaay ci moom aw day ni wala gannaaw bu ñu fayee bor li ko waral mooy abaakum seen baay yi leen jur waa am naawakum ak seen doom yi ngeen jur laata droona da ngeen mënul xam ayyuhum kan ci ñoom aqrabu moo la gën a jege lakkum nafaan ci njëriñ faridatan lii luñ dogal la inna laa yu bàyyee ko ci yàlla inna laa yàlla kaana musumoo dañu aliman di aji xam xakiman di aji xara la amul kenn ku mën a wax ne sama baay ma gën a jege sama doom wala sama dooma ma gën a jege sama baay yàlla ne loolu moom xamu leen ko moom ndax ni la kii def nga def kii ñu yem képp rek buur ne wala kum ñeel na leen yéen ñu góor ñi nag ni suma tarak genn wàll la bàyyi na ko aswaajukum seeni jabar in lam bu nekkul la woon na ñeel jigéen ña wala dun doom jabar bu dee te amul benn doom juróo koog moom juróo koog keneen ku góor ki na jël genn wàll ga fayin kaana bu nekkee lawun na ñeel jabar ya wala dun doom te fii doom maanaahu ku juddu rek du góor wala fi du tekki ku góor falakum kon ñeel na leen yéen jëkkër ya arrubu am ñeenteel ndax doom am na mi ma tarak na ci la bàyyi na ko jigéen ña min baadi wasiyatin gannaaw dénkaane boo xam ne yuusi na jigéen ña dénkaane nañ bi ci moom aw daynin wala gannaaw bu ñu fayee seen i bor wala hun na ñeel na seen jabar bu góor faatoo arrubu am ñeenteel bi ma taraktum ci yéen li ngeen fi bayyi in lam yakun bu fekkee nekkut lakum ñeleen wala dun doom kay waaye fa in kaana bu nekkee lakum ñeel leen wala dun doom góor la wala jigéen falahunna ñeel na jabar ya donte bari nañ asumunu ab juróom ñetteel waaye sharia nag munul sumunlo sumun loppa ñeent bi ma taratum ci li ngeen bayyi in lam yakun bu nekkut lakum ñeleen wala dun doom fa in kaana bu nekkee lakum ñee leen wala dun doom fa lahunna ñeel na jigéen ñaa sumunu ab juróom-ñetti li ma taraktum min baadi wasiyatin yuusuuna bihaa aw daynin wa in kaana bu nekkee rajulun ku góor a dee yóoru su dee si ko doon kalaala tan muy kalaala kalaala mooy ku jurul kenn ñi la jur kenn newu fi koo koy kalaala kon ñëpp ñi koy doon na ay jege ñaale lañ andi na kalaala ci bopp saar wa dana indiwaat kalaala ci mujj saar wa waaye ñaari mas yi dañoo bokkul fenn fi ay doomi ndey ak baay ñooy donn fenn fi ay doomi ndey rek la moo tax ñaari masala yi moo indi te bokkuñ li ñuy wax fii nag mu ne nga seet ko in bu nekkee rajulun waay moo dee yorusu dee su ko dona te kalaa la mu nekk kalaa la ay imraatun jigéen moo dee ñu di ko donna ci kalaa la mooy jurut ñi ko juróon newuñ fi wala woote ñeel na ko axun mbokk aw waxtun wala mbokk mu jigéen kon ay mbokk rek koy doon ci jegiñaale kon fa li kulli waaxidin ñeel na képp kenn min huma ci ñoom asudusu ab juróom benneel loola moom ay doomi ndey lañ moo tax wayin kaanoo buñ nekk ak tara kon ñooy bokk sulus ba te it buñ koy seddoo ñooy yem góor du fa ëppale jigéen ay doomi ndey bu ñuy doon ñooy yem mu ne loolu min baa di wasiyatin gannaaw dénkaane yuusaa boobu def ne dénkaane bi aw daynin wala bor xayra mudaarin waxuma nag bor wala waxuma nag dénkaane buy lor wasiyata na nekk dénkaane min laa bàyyi ko ci yàlla walaahu yàlla alimun aji xam la xalimun aji lewet la di a dee rek ne sama alal nañ ko sarax diw rek ba lépp jeex lool nag bu fekkee dénkaane buy lor la sharia da koy teppi buur ne tilka loolu nag xududullaahi mooy daylu yàlla de wa man yutii ku topp na laa yàlla wa rasuluk yu nintaam aljanna yoo xam ne tajri dina daw min taxtiha ci suufam al anhaaru yolu yent xaalidina ñu di way beelu fiha ci aljanna wa zalika beelu ci aljanna nag alfawzu moo di texe alazimu gudaay ji mag wa man yaasi ku moy na laa yàlla wa rasulahu ak am yonentaam wa yataadda mu jéggi mu jéggi xududahu dayalu yàlla yi kooka bu dajeg yàlla yudxilhu dana dugal ko naaran safara woo xam ne su ca duggee xaalidan day sax fiyaa foofale du ci génnati wala wa ñeel ko kon di azabun mbugal moo xam ne muhiinun aji doyadal la ko mu ñëw nag ci zina mu di fahishatul mamquuta muy ñaawteef yi ñu gën a bañ ulamaw tafsir ñu gën a bari ci ñoom ñi gëm naa naasix man suux dañoo wax ne aaya ji folli nañ ko nee li ko folli mooy xadis ba nga xam ne moo wax ne ku njaaloo te sangewu ñu rey ko ku njaaloo te sangewut ñu caw ko ci soratu noor ñu ne ndax aaya jooju dañoo folli mbind ma bàyyi jàng ga ba dañoo jàng ga bàyyi bind bàyyi ko te bàyyi atte ba ne nañ lu fi nekkoon ci soratu noor mooy acheikhu wa cheikhatu in zanna yaa rujimal battata azaniyatu wa zani fajlidu kulla waahidin minhuma miata jalda léegi nag folli nañu acheikhu wa cheikhatu atte baa ngi fi des xadis yi ñoo ko leeral ñaar lañ ma sa rey ci zina ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam kenn ku góor ak kenn ku jigéen kenn ki maïsa la kenn ki xaamidi la ñoom loolu la ñuy wax waaye yi ak ñu bari ñu ànd ak moom dañoo wax ne alquran duñ ci fali dara dañ dul xam rek li koy tax a jóg nee nañu ay ji nu nar a jàng fii aayay mbugalam musaxaqa la mooy jigéen ak jigéen lala arab di wax musaxaqa nee na ñooñu la ñuy mbugal di leen tëj cib néeg ba ñuy dee mu ne aayay ba ca topp wala zaniyaati yaaniha ñu lor leen te mooy ñu rey leen bu ñu tuubee te jàpp guñ leen ñu baleen mu ne loolu mooy liwaat diggante góor ak góor mu ne wal waaye nag azaniyatu wa zani kooku mooy jigéen ak góor te sange ñu caw leen ba ca des nag xadis yi ñoo ko confirmé mooy ñu rey leen xajaas yi na fàlliwuñ ci dara mu ne moo tax mu ne wallaati jigéen ñi nga xam ne yaati na danañu indi alfahisha taw ñaaw téef min nisaayikum ci seen jigéen ñi yéen julit ñi fa fastashidoo na ngeen sàkk ay seede alayhi na waral leen arbaatan ñeent minkum ci yéen góor ñi fa in shahidoo bu ñu seede rek fam sikoo na tëj leen leen fil buyuti ciy néeg duñ lekkati xataa yatawaffahuna al mawt ba dee dikkal leen aw yajalullahu wala def yàlla lawun ñeleen sabilan yoon wala ñu téye leen mbugal leen ba seen seen rafet ñu baleen wala zani ñaari góor ñi nga xam ne nag yaati yaani ha andi nañ ñaawteef yooyu minkum ci yéen góor ñi yéen julit ñi fa azuhuma lor leen leen ba ñu dee rek ndaxam nag fa in taaba buñ tuubee bala ngeen leen ngeen leen a jàpp wa aslaha ñu yéwénal nag Ah, faaridu na ngeen dëddu anhuma walis leen ndax ina laa yàlla kat moom bul bul yëg ne bul fàtte ne kaana musul dañ tawaaban di nangu waa koon tuub raximan di ak yiram kii nangam la woon waaye nekkatu ko tuub moomu nag nena na tuub moomu nag bunt la bu tëjagut ana kañ lay tëj bés bu jant bi fenkee ci sow bu ko rogee ku jeex na gaa yi dañuy dal laf seen i téere rek dal di yéeg tub dootuñ ko nangu doo defe ci dara lu nekk lenn mu ne loolu la mu ne ana kañ la kañ la ñu tëj tuub itam bu nit ki toogee ba sukkuraat fekk tuubuloon ba sukkuraat ñëw mu jano xaybu ah boobu du baax nag ana gan tuub lañ du nangu ki def ki nekk yéefér ba dee ci kéefér kooku ñëpp boo dajewoon jullit yëpp ñu fi ko ñaanal ko julle ko it dara ci kéefar la dee xat kafara kooku moom la yuxfaru moo tax buur ne innama tawbatu naka tuub ala lazina war na ñi nga xam ne alallaahi waral yàlla mu di ko nangu li lazina ñeel na ñi nga xam ne yaamaluuna ñu ngi jëf soo lu ñaaw bi jahalatin fekk ak réere la woon gannaaw ga su ma yettu boona ñu tub min qaribin lu jege lu jege mooy balaa ñoo dee fa ulaayika ñooñu nag yetoobu laahu dana nangu yàlla tuba alim ci ñoom ndax wa kaana musul dañ da laahu yàlla aliman di aji xam xakiman di aji xarala wante wa laysati tawbatu nekkul tuub nag li lésine di ñeel ñi nga xam ne yaamaloona ñu ngay jëf sayiaati aw njombe xata isa xadara toog nag ba teew almawtu dee ahadukum ci yéen xaala mu ne inni man tubtu tub na al léegi bi may dee déedéet du baaxati ndax itam nit ki bu diggam jeexee rek am na ay malaaka yoo xam ne muy raqib ak atit ñoo yore ñoo yore sijlu bi raqib moo commandé atit bu ñu xoolee ba xam ne kii digg bi jeex na rek dañuy daal di tëj téere ba nag dem booy tubati du ñu am fu ñu ko bindee yàqu na moo tax mu ne lool boobu du baax wala lazina du caageen ñi nga xam ne yamuutu na danañ dee wa humtu ñoom faaroon ci kéefar gi lañ dee kooku moom dara mënu ci dara moo tax buñ nee nañu góor góor lu defal ko fi daaw ah daaw ak ñaan la mën naa yokk de waaye du nekk fondement bu baaxut du def dara bu fekkee fondement bi baaxut addina si yépp bu ci yonent yi bokkoon sax di ñaan du baax fondement bi baaxut moom ma ngay baax ci fondement bi baax ñu ñaan xëy na mu yokk ca moo tax mu ne yam ladina yamuutuna wa hum kuffaar kooku tub amu ci ulaayika ñoom ñu koy ñoom jeexal nañ aata naa xare nañ waajal nañ lawum ñe leen azabun bugal moo xam ne aliman aji metti la te yàlla wax na ko ba pare te ci dellu gannaaw nan la ñu yore jigen ñi ci ci kër gi xam nga arab amon nañ benn aada bi lislam ñëwagut waa ci bayam dee day tànn ci jabari bàyyi ñu ko neex mu donn leen wala boog bu fekkee yaa mag ci famille bi ñi leen ñi la neex ci ji nga leen ci nga wëcc leen ñu taxawaalu ji rek sama borom ne ya ayyuha alladina amanu yen kemal ñi gëm la laa yaxillu du dagan muk lakum ñeel len antarisoo ngeen done ni saa jigéen ñe karaan ci forcé te magum kër gi soxna si ndaw la xëy rafetna ma don nako wala mënuma koo don na rek nga ne nako galankor ba du ki ah may magam may chef fami bi kat do fi kenn du la fi sama borom ne wala taxduluhu na bu leen li tasaboo ndax bañ ñu yóbbu rek bi baadi ma aataytumuhunna na ci li ngeen leen jox te loolu dafay gaar doomu aadama jox xam ne dafay denc ku jigéen dafay denc jigéen def ci alal ju bari mënu leen a juboo mënoo wacca ndaw si ndax kon day yóbbu alal ji te yore bi du baax yàlla ne déedéet bu leen def loolu pour bañ mu dem ak li ngeen ko joxoon illaan yaatiina lu may nga xam ne jigéen ñi dañoo indi bi faaxishatin ci aw ñaaw téef mu bayyanatin wu ñu biral ñépp a xam ne kii dafay defu ñaaw téef wa na àndale nag jigéen ñi bil maarufi ci njëkk léegi nag fayin na bu ngeen leen bañee te loolu day am bëgg nga ko ba yàgg mu mel noo xam ne léegi bañ nga ko yàlla ne jaamul yàlla faa asa na an takrahu ngeen bañ cheyan dara waaye jàllalaaw def yàlla fii ci li ngeen bañ xeyran yiw wu bari muñal rek wayin aratum su ngeen bëggoon nag istibdaala zawjin wuutal jabar makkaana zawjin fa palaasu jabar loolu nag borom barki yi ñoo koy def kum naa ne ñaaw na donte alquran wax na ne buñ ko bëggoon a def nu ñuy def yere jigéen ba yàgg nga ne dafa màggat te mënoo weesu ñeent nga ko ber gars yi ne ñu yóbbu ko barzaq ku ndaw teg fa alquran su ngeen bëggee loolu واتيتم ген جو ايداو نك kenn قنطارا ñeen qintaaran alal ju bari ju ngeen ko joxoon ah fala taaxudu bu leen jël nag minu ci alal ja seen tus nag waa ji nga bëgg ko kereel problème ndax mu génn ci nak alal ji des fi alquran ne ngaa fàtte atakhuzunahu koku istifham bobu taw bi xii la du laajte kese day yeddaale atakhuzunahu mu ndax da ngeen di nangu nag alal jaag can ga buhtaanan ci ndar ngeen ko nangu wa isman ak bakar mubinan binan bu day ci biir benn yaraangoog nga jël gi ngeen ko jël aw nar la bakkaar la alquran dal di yéem nag sag ñàkk nitee mu ne est ce way seetal ndaw si li mu daj ci yow seetal ndaw si fi nga toll woon ci moom seetal lan ko xamal la nga gis ca moom nga xam ne aw wajuram sax rus na gis ko ca moom القران وكيف تاخذونه نك نين دي جلي على الجا وقد افضات يغن بعضكم كن تي الى بعض تي كنك واخذنا تي جاب منكم تي ميثاقا كل غليظا بوداجي دغر بوكو وتي بايكم ديم اك لولا نك بين لولا واي ген غول كيرغي ماغي تي انا يان جيجين نوي نيغا خامني شريعه ننا كين دولين دنج ñan jigéen ñooy ñi nga xam ne sharia nee na daganut ñu di leen di denc faw ñooña am na ca ñoo xam ne ay cosaan lañu moo di ndey ak maam ak maam yi maam lu mu sori sori kooku ak cosaan a tax mu xaraam am na ca ñoo xam ne ay banqaas lañ mooy doom ju jigéen ak doomi doom ju jigéen doom ju jigéen ji doom ju góor jur lu mu sori sori ñooñu ay banqaas lañ am na ca ñoo xam ne ay jege ñaale lañu moo di sab jigéen ndey ak baay ngeen bokk ndey rek walla baay rek wala bokk ñoo xam ne ay ay ay ay ndey tax lañ moo di mbokkum ndey ki bokk ak ndey ndey ak baay wala ndey rek wala baay rek wala bàjjan mooy ko bokk ak baay ndey wala ndey rek wala wala baay rek ñii kenn du leen denc donte bàjjanu baay lay it kenn du ko denc wala ndey taxu yaay itam muy sa tantu ndey kenn du ko denc ndax moom itam mooy maam rek. naka noona sa mbokk moomale ki nga bokkal ndey ak wala ndey rek wala bàyyi muy góor doomam it ko denc ki nga bokkal ndey ak bàyyi wala ndey rek wala bàyyi rek muy jigéen doomam jarbaat boobu doo ko denc moom am na ñeneen ñoo xam ne xaraam gi xaram nga denc leen ci wàllu nampaale rek la ci askan mooy da ngeen a bokk namp bu fekkee ne gune dafa namp ci jenn jigéen ndaw sa ndeyam la jëkkëri ndaw sa kon dana xaraam gune ne googale ndax baayam la baayum nampaaleem la doomi ndaw soosa dana xaraam gu googale ndax mbokkum nampaaleem la loolu nampaale koy indi am na geneen xaram goo xam ne ak goro moo koy indi ci diggante ay nit ni ki yaayu jabar ni ki yaayu jabar naka nonu jabari dom yooyu itam sababu musahara motax dudagan du dagan nga diko denj ci loolu nak bu fekke ne tay nit ki dafa yore jabar jabar jam dom ji jigen dom joju domu jiitle bobu munu ko denj naka nono jabaram joju naka noonu tanti jabaram jooju bokk ak ndey jabar ji ndey ak baay du ko mën a denc naka noonu jabari doom xaraam na baay ja ba ca maam ja bu ñooñu jeexee nag am na li ko fukkeel mooy koo xam ne li tax mu xaraam ba mënoo koo denc loolu dafa gaar lu gaar nag bu deñee rek dagan loola mooy lan ñaari jigéen ñu bokk ndey ak baay wala ndey rek wala bàyyi rek doo leen boole ci benn bu mag sëy waaye boo ca wëccee kenn mën caa rekk ca des walla boog nga denc jigéen bàjjanam bi bokk ak ndey ak ndey ak baay wala ndey rek wala baay rek bàjjan boobu doo ko mën a denc boo ko wëccee nag mën a jël bàjjan ba wala boog nga denc jigéen tantaam ji bokk ak ndeyam ndey wala ndey rek wala baay rek doo ko mën a denc boo ko nag mën a jël kee ndax kooku li tax mu xaraam seen diggante lu gaar la lu gaar la bu deñee kon mu dañ ñoo ñooñu la alquran di nettali ne mu teg ci nag ne lu mooy li yoon li wéyoon mooy lañ nekkoon ca jamonoy aadama ak ci sharia bani israil ak la arab daan def ci denc sa jabari baay ak yooyu mu am nag ay aada yoo xam ne réew mu nekk seen aada dana ko rafetal seen aada dana ko ñaawal bu ko rafetalee ñu def ko bu ko ñaawalee duñ ko def loola moom fekk xaraamut sharia moom yoonam nekku ca mooy boo demee ci biir bawal wala kajoor nit najaayam day dee ñu tagg ko ne jarbaat bu baax la may ko jabari najaayam loolu kajoor bawal rek ku ñeme saalum kenn du ko fa def jolof kenn du ko laal loolu ku ko def musiba la foofu loolu nag parce que aada la aada koy ñaawal ak rafetal waaye sharia bañu ko alquran ne wala tankixu bu leen denc maanaka xala dencoon na ko abaawakum seeni i baay mi ne ni saay ci jigéen donte seen baay wacc ko donte seen baay dee na illa ma qad salafa lu mooy li wéyoon innahu naka denc jabari baay nag kaana musul dañ faaxishatan diw ñaaw téef wa maqtan dim sànj wa saa bon na sabilan wawu yoon xorimat xaraamaleef na aleykum ci yéen umaatukum seen ndey yi leen jur wa banaatukum ak seen doom yi ngeen jur waa xawaatukum ak seeni i soo demee ca euh, tafsirul manaar cheikh Mouhamad Abdou ba mu ne banaatukum daf ne kan mooy seen doom mu ne seen doom mooy ki nga xam ne yéen a ko jur fekk da ngeen a takk ndey ja waaye bu ngeen ko juree te fekk tëkku leen ndey ja sharia du nangu ne seen doom la boo taseeg moom ëllëgit bu la neexee denc ko ndax jotewu leen dara sharia nangu wut loola منهم لولو موي معنا بناتكم واخواتكم اك سيني مبوكو مبوكو مو جيجين مودي جيجين وعماتكم اك سيني سيني بايتخ موي ندي تخ موي باجان بي دال وخالاتكم اك ندي تخ موي مبوكم ندي وبنات الاخي اك دوم جو جيجين جو سمبوكو مو غور جور وبنات الاختي اك جربات وقامنا سب جيجين نكو جو وماتكم اك سيني ياي yi nga xamne sax alati yi nga xamne juruñ len waye ardanakum nampal nañ len ci waxtu ngeen feragul wa xawaatukum ak seeni mbokk itam nak min ridaati ki nga bok nampa ci jenn jigen ci wenn waxtu wa ummatu nisaikum ak seen yaayu jabar wa rabaibukum ak ki ngeen yar alati ki nga xamne ne fi hujurikum ngi senam lol la te ngeen yore ndeyam min nisaikum seeni jabar gune gu jigéen gi ñëw ci kër gi ndeyam indi ko nga yore ndeyam kooku doo ko denc waaye allaati ndey ya nga xam ne daxaltum xaraf ngeen bihin nag ñoom bu fekkee ndey ji kay jote ngeen dara léegi nit ki dañ ko mayoon jigéen jigéen jaa ngi am doom ab janq la a ah, mu sant jaw lool demaat fa gis doom ji rek ne moom daal kiyatut ci doom ji lay nekk dal di wëccëkale te jotul joteeg ndey ji dara sharia nee na ñaaw na waaye yoonam nekku ci ñaaw na ci aada sharia moom nee na moo tax mu ne fay lam takkunu su ngeen nekkul kay daxaltum di xaraf bi nag ndey safaan ba nag du sotti bu la xasoon may doom ji bu ngeen jotewul dara yi ndey ji moom xaram na wala junaax dit bakkaar aleykum di war leen waxalay am na ayikum ak jigéen ñi nga xam ne dagan nañ seen doom yu góor ya mooy sa jabari doom ju góor na doom yi nga xam ne laa wax min aslaabikum bàyyeekoo nañ ci seen i ndigg waxuma kuñ la doom leeg koo adopteeg euh, alu lu demee ni ki noonu dama ne min aslaabikum sa doom ju góor ju bàyyeekoo ci seen digg jabaram xaraam na la xaraam na it wa an tajmau ngeen boole baynal uxtayni ñaari mbokk ila ma qad may lëwéyoon ci jahiliya ñu nit suñ jahiliya fii bari na suñ buur yi daan nañ ko def wala ilaa ma qad salafa loola moom nga xam ne wéyoon na ah bu fekkee ñooñu defoon nañ ko ci jaahiliya te bi diine ñëwee ñu dugg ca tuub nañ rafetal seen ak tuub loolu nun ko baax yàlla ndax ina laa yàlla moom kaana mosul dañ xafooran di aji bale raximan di aji yërëm صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا مولانا ورازقنا من الشاهدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحق القرآن الكريم اللهم اغفر لمذنبينا اللهم اعف عنا اللهم ارزقنا اللهم طول أعمارنا وزد في أرزاقنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم نعوذ بك من الفوضى ومن شرور أنفسنا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 wa radiya allahu an sal allahu alayhi wa sallam mu ngi waxoon démb fukki jigéen yoo xam ne mu ne su a takk ci sharia yoon da koy bañ ñoña nag ci ñoom lay atif ne wal muxsanaatu ak way sangewu yamina nisaa yi ci ay jigéen ak yépp jigéen joo xam ne mu ngi nekk ci buumug séyug jaambur kooku it bokk na ci ñi ñu dul takk ñooñu yëpp duñ leen takk illaa ma malakat lu mooy la moom na ko aymaanukum seeni ndeyjoor mu ne su fekkee ne tey dafa wax xeeti jigéen ñi ne sababi goro moo tax mu xaraam ñii lu gaar la ni ki mbokkam jabar ak yi demee ni ki noonu léegi mu atif ci képp ku nekk ci bu seeg jambur mu ne lu moy nak ko xamne nekkon na ci buumug seeg jambur waye dafa nekkon yéefar ñu xex seen réew ci jihar ju jaar ci yoon japp ku jigen koka koka bu nekkon ci bu jàmbur jamburit bok na ci mamalakat aymanukum aymaanukum li tere bi yalla la ci faratal ci yeen mu ne wa daggane daganaleef na lakkum ñeen leen maa a daalikum lépp lu nekk ci gannaaw loolu an tabtaxu ngeen sàkku bi am waalikum ci seeni alal muxsiniina ngeen nekk di way sangewu ca takk ga xayra mustaafixiin te nekku leen di way caaxaan mu ne denc googu ngeen di denc nag njëriñ la yépp mooy ngeen fegoo ci denc gi ñàkk defeti ay njubadi fa mastamtaatum lépp lu ngeen bànneexoo bii ci xeetu takk ak sëy min hun na ci jigéen ñi faatoohun na jox leen leen ujoorahun na seeni yool te mooy can ga faridatan mu di lu ñu dogal wala junaa adit bakkaar aleykum war leen fi ma taradaytum ci lépp loo xam ne gërëmante ngeen ko bii ci can min baadil faridati wala bii ci joxe gi min baadil faridati gannaaw jurug farata gi su ngeen gërëmantee ci lu tuuti baax na bu ngeen gërëmantee juboo ci lu bari it baax na inna anak nag yàlla kaana mu aliman di aji xam xakiman di aji xarala léegi nak koo amul can ngir tak jigen ñi nga xam ne moo ñoom daraja dara desewu ko lu moy can nak kuñ mom la wut mo lol la alquran di wax naan wa man lam yastati ku atanul ku manul minkum ci yeen amul most atawlan can an yan ki walla wala tawlan kàttan loo xam ne an yan ki mu dencee ca almuhsanaati way sangewu ya almuminaat ñe di way gëm yàlla ñooña fa mi mamalakat kon na denc ci la la xam ne moom na ko ay maanukum seeni ndeyjoor min fatayaatikum ca seen xale yu jigéen yi kon mel na ni dafay bëgg léegi ay xeeti jigéen yoo xam ne kenn mënu leen a denc mu wax ko ci darsu bi nga xam ne moo weesu mu ne gannaaw ñooñu ki nga xam ne nag moom mënula denc ñeñ ko denceloo ndax li waral mënut loola moo dina dafa amul can kooka na dem ci ñi nga xam ne ñoo gën a wàcc daraja ci seen aada te mooy ñuy waxoon ne dañ leen a moom kon mu mel nii <clears throat> gor si takk nag ki nekk gor moomeef gi nag moom nga kook seeni ñiñ tollool koo xam ne nag ragal na ne du mën a téye boppam te amul ca nag gor ya ndax ñoo gën a cher na dem ci ñi nga xam ne dañ wax ne dañ leen a moom ci ay julit yii yépp ma ngi koy wax ci jamono bi nga xam ne loolu noonu la amee woon waaye nekkul loo xam ne jamono jii nga xam ne loolu amatul loolu amatul benn sens ndax fii kuñ fi waxoon ne sax jaam la ci aada tey soo ko bëggee <clears throat> da ko da nga ca def li ñuy def ci ñenn ña loolu moo tax ñi mu ngi koy wax ci jamono bi nga xam ne jaam dafa am dangay ngay waxaale ñu ne fukki junne nga fay bëgg na la bëggut la nga yóbbu waaye jamono jii bu ñu la waxee ni kii jaam la ñu wax ne kii ko moom mu laaj la juróomi junni yit ngay dem ngoro te bugg gën a bëggul du ñëw moo tax nga xam ne jaam amul ndax bu amoon boo joxee dootu sañ a bañ waaye léegi boo joxee bu la gën a bëggul day lànk day lànk te kenn du ko mën a forcer mooy kenn moomu ko lay tekki wallaahu yàlla aalamu moo xam bi imaanikum seen gëm yàlla baadukum leen ci yéen min baadin ci ñenn ñi la ñuy jógee fankiixuna na ngeen takk ñooñu bi izni alihinna ci ndigalal seen ñooñ waatu waatuhunna jox leen leen ujuurahunna seeni can mooy yool ba bil maaruf yi na nekk ci njëkk sëy nekkul buntëb muusante waaye buntëb gorewante la kon nag na nekk maaruf muhsanaatin jigéen ñi itam waxtu wi ñu leen takkee nañ nekk di way sangewoo ca takk ga xayra musaafihaatin waaye denc gañ leen denc bu mu nekk sabab mu jëm ci ag yàqute wala mutaxidaati axdaanin du caagee nit takk gi ñu leen takk ubbil leen ab buntu pour ñuy jàpp ax daanin ay xarit yu góor jigéen du am xarit bu góor fa ida uxsin na bu fekkee ne sangewu nañ nag ca boobale léegi ñu seet fa in aatay na bu ñu indee bi faaxishatin ci lu ñaaw mu di aw ñaaw téef fa alayhinna war na leen fu ma ala al muxsanaati genn wàll ak li war gor su jigéen su sangewu min al adaabi ci mbugal dalika loolu nag <coughs> boo gisee ñu naan demal takki moomeef ndax moo gën a yomb ak can mu ne loolu nag li man xashiya waaye mooy ki ragaloon na alaanata njaaloo minkum ci yéen waaye ki mën a téye boppam ragalu ko bu mu ca dugg ndax dugg gi <coughs> li muy indi mooy bu ëllëgee doom ji ci juddoo fu mu taxaw ñu naan ko yow nangam dong nga su ko defee gune googu yow baay ji yaa ko teg xas woowale ak coono boobale moo tax mu ne loolu nag li man la laanata rek minkum wa an ñi nga xam ne su ngeen leen takkee wax du am gannaaw ga kon khairun moo gën lakum ñeen len wallahu yàlla gafurun aji baal la mu rahimun <clears throat> aji yëram la mu leen yuridullahu bëgg na yàlla li yu bayyi na muy biral lakum ñeen leen seen seen yoon yi ngeen di jaar wa yahdiyakum muy jubal len sunan alladina yoon ñi nga xam min qablikum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci baax yoon yiñ jaaroon yàlla dafa bëgg leeral loolu ndax ngeen jaar ci mu nangu tuub aleykum ci yéen wallaahu yàlla alimun aji xam la xakimun yàlla aji xarala la wallaahu yàlla yuridu dana bëgg an yetooba muy nangu tuuba aleykum ci yéen wa yuridu dana bëgg nag lazina ñi nga xam ne yettabiuuna ñooy topp shahawaati bànneex ya ñooñu nag dañoo bëgg an tamiloo ngeen jéng may leen jéng goo xam ne adiman aji màgg la yuridu laaw bëgg na yàlla an yu xafifa muy oyofal ankum ci yéen moo tax mu indi àtte yooyu xam nañ ne uxuliqa bindeef na linsaanu doomu aadama daifan mu yaa ji doyadi ci kanam li mu bëgg li mu bëgg daal daf ciy doyadi ba dootu ci am xel moo tax mu indi ci ak yombal yaa ayyuha alladina amanu ey yéen gaa ñi gëm alquran laa taakulu bu leen lekk amwaalakum seeni alal baynakum seen diggante bil baatili ci caaxaan te mooy riba ak naxante ak lekkaali li jaambur ci lu du teeg bakkanam bu leen ko def illa an na alal daal buleen ko def lu mooy ci yoon woowu xanaa boog mu nekk tijaaratan di ak yaxantu di ko jënd di ko jaayaat antaraadin fekk yow mi ngay jaayante ki ngay jëndanteeg gërëmante ngeen min kum ci yéen ca la ngeen di jaayante kon loola amatul <clears throat> benn nax duñu wax rek ne fukk laa ko jëndee jaay naa ko ñaar fukk bénéfice bi bari na loolu du tax mu xaram bu fekkee antaraadin la man maa ko moom lii laa koy jaayee loolu dara nekku ca wala taqtulu bu leen rey nag anfusakum seen bopp bu leen rey seen bopp mooy bu leen dugal seen bopp ci lépp loo xam ne loraange moo ciy jógee ñeen leen ndax sa bakkan bi moom moo ko nit ki amul ah, nit ki amul xaq amul droit ci rey boppam ndax itam li usul di wax alxuququ al amma wala al kulliyaatul amma kulliyaatul xamsa yooyu kenn moomut leen amut ci kenn ku ñeme wax ne maa moom naa ci def lu ma neex mooy sa bakkan moomuloo ko loolu moo tax boo ko reyee yoon dal ci sa kaw bu ñu la yëgee téye la balaa nga kaa def sa doom moom moo moomoo ko doom société bi yépp ko moom yàlla ko moom soo ko bëggee na rey ñu bañ wala boo boo ko defee ba pare ñu jàpp jàppale ca alal kenn moomu ko soo génnewoon xaalis lakk ci mbedd mi léegi tey ñu jàpp la ndax moom moo ko pour ñëpp la rek booy dem bàyyi fi boo fi nekkee nga bokk ko ak doomu aadama yi diine kenn moomu ko boo ko bëggoon moo tax waa usul di wax ne alkuliyaatul xamsa kenn moomut leen loolu moo tax yàlla ne wala taqtulu bu leen rey anfusakum seen bopp inna laa nag yàlla kaana mu sumoo dañ rahiman daa ji yéram bikum ci yéen wa man yafaal ku def na dalika loolu mooy jéem a rey boppam dugal boppam ci loo xam ne daganut lekk alalam ci caaxaan mu ko def loolu wa udwaanan ngir ak noonee wa dulman ak tooñ fa safa nuslihi dana nu ko jaaral ëllëg naaran aw safara wa mosul deñ dañ dugal safara ku tooñ musul dañ yasiran daa ji yomba àlalaay ci yàlla léegi nag su fekkee ne doomu adama <coughs> dafa bàyyi bakkaar yu mag yi yàlla nee na dana ko dana ko faral kon bakkaar yi nga xam ne mooy yu ndaw ulamaawu tafsir jubóowuñu ci yan bàkkaar ñoo mag ak yan bàkkaar ñoo ndaw waaye am na ci ñoom ñoo xam ne dañu jàpp ci ay xadis di wane na daal bakkaar yu mag yi daal bakkaar boo xam ne su ko nit ki defee bu ko nit ki defee dana yëg ne def na bakkaar dana tiit dana tuub booba bakkaar ku ne xam na ne bu ndaw la ndax yëg gim ko yëg tuub ci ki nga xam ne mooy jégale bakkaar booba ndaw na bakkaar bi mag nag mooy bakkaar boo xam ne su ko nit ki defee day mel ni yëgut ne def na bàkkaar yoonam nekku ca du ca tiit du tuub booba mag na moo tax yeneen bi ne laa danba ma al istigfaar wala istigfaara ma al israar loolu la waaye jàng nañ ci buxaari ak muslim mu indi juróom-ñaari bàkkaar ñu ne yaakaar nañ ne mooy yi gën a mag lu tax mu ne yaakaar nañ ne moo gën a mag dañ ko tuddee al mubiqaat as saba noonu la génne ci buxaari ak muslim ba yonent bi ne wattu leen almubiqaatu saba wala ñu tuddee ko almuhlikaat ijtanibu saba xaat wala almuhlikaat wattandiku leen juróom-ñaari bakkaar yi nga xam ne day alak maanaa day taxa dugg safara ñu ne yooyu juróom-ñaar la ñu ne kon nag comme yàlla wax na ne juróom-ñaari bakkaar a ngi day alak wala day dugal safara ñu yaakaar ne kon aman na yooye la ñuy tuddee bakkaar yu mag ya yooya ni mu génnee ci buxaari ya muslim ba ko yonent bi waxee sahaaba yi nekk wa ma hiya ya rasulallah lan mooy al mubiqaat bàkkaar yi alak mu ne bu njëkk bi mooy bokkaaleg yàlla boobooy bu njëkk bi bu ñaareel bi mooy rey bakkan bi yàlla xaraamal ci dëgg mu nga ko ci tey bu ñetteel bi moo di ak njabar bu ñeenteel bi mooy lekkaale li jirim bu juróomeel bi mooy lekkaale li riba bu juróom benneel bi mooy daw ci jihaar ca kanam noon ba bu fekkee ëpp nañ ñu ñaar ca bu bu mujj bi mooy xas gor su jigéen su sangewu nga xas ko teg ko ak teg ko ne day def na <clears throat> loola la yeneen yonent bi tuddee almubiqaat asaba muy juróom-ñaari bàkkaar yi nga xam ne ne nañ moo gën a màgg ci bàkkaar yi ndax loola nag kon mooy kabaayir ya wala duhut loola loola moom dañ koy delloo ki nga xam ne mooy tabaraka wa waaye li wóor daal mooy bakkaar bu nit ki jéggalu rëyatul ndax dañ ko koy baal bakkaar bi borom fàttee néewal ko doole boobu moom moo rëy ndax daf fi nekk moo tax alquran ne in tajtani bu ndem teet ngeen ka baayira teet mooy wattandiku ka baayira maa way maggi loo xam ne tun xaw na def na tere leen ko anu ci moom nu kafir ñu nitam ñu far ankum ci yéen sa yaatikum seen i bakkaar wanut xilkum ñu dugal leen mudd xelan dugguwaay yoo xam ne kariman aji tedd la te moo di njéggalal yàlla bàyyi na loolu mu ñëw ci li ñuy wax yaatu ay mébét yaatu mébét ak buggee ndax yaatu mébét mooy indi bëggee bëggee mooy indi kañaan ndax su sa mébét yaatoo lu nekk nga bëgg ka am kon loo gis kenn am ko nga tek ci sa beut dang koy daldi bëgg am soko bëgg am yéex ko am bo sàgganee nga ko ka lolu mu am te kañaan moy ki li mu am nako ñak don donte duma ci jot lolu <laughs> ci xéeti bakkaar yi yu mag yi nga xamne ne ci kabaayir la bokku man na bokk ci yobu safara ndax bo seto adam ali salatu wassalam <clears throat> bakar bi nga xamne ne genné aljanna wala jannatu ba mu nekkoon ba dem ci àddina moo di xër xër gi mu xëroon ndax iblis moo ne ko woon ala adulukum ala shajaratul xuldi wa mulkun la yabla ma tegtal leen euh, nguur goo xam ne du jeexati bëgg gi mu bëggee xër ci nguur gu du jeex moo tax mu lekk garab gi ñu ko aaye woon ndax dañ ne ko gii boo ko lekkee dootoo dootoo dootoo génn fii kooku bëggee moo ko ko génn moo ko génnee ca lool <laughs> iblis moom itam kañaan moo tax yàlla alak ko ndax biñ ne ko na nga ñëw su jootal aadam mu ne loolu duma ko def ndax kii yaa ngi ko bind ci nangam ma bind ko ci nangam man añaane naa kii boobu daraja loolu bokk na ci li ko alag bokk na ci li alag iblis moo di rëy rëy moo di ne kii ci ban lañ ko bindee man ñu bindee ma ci safara kon maa ko gën gis gi mu gis ngeneel ci kaw kooka loola mooy li nga xam ne moo ko alag loolu moo tax alquran ne wala naw bu leen mébét maa faddala la gënal naka laahu yàlla bi ci xeeti am-am baadakum leen ci yéen la baadin ci ñenn ña lir rijaali ñeel na ay góor nasibun cër bi mag tasaboo ci li ñuy fàggu danañ ci am cër alxajazi nee na asbaabu nusuuli ay jooju mu ne ay riwaayaat yu bare bari la ci nit wax ñenn ñi dañu wax ne rek affaire miraas moo ko tax a jóg ñu ne déedéet affaire yi jigéen ñi nga xam ne dañ daan mébét naan lu tax ñun duñu jiar goor góor ñi di jiar yàlla di leen fay di leen dig aljanna ñun bokkuñ ci yàlla ne leen nag wala tamanaw bu leen mébét ma faddala la gënal nak allahu yàlla bi ci moom baadukum leen ci na la baadin ci ñenn ñi li rijaali ñeel na ay góor nasibun ab cër mi mag tasaboo ci li ñuy faggu wali nisaa ñeel na jigéen nit nasibun ab cër mi maktasam na ci li ñuy fàggu wasalullah na ngeen ñaan yàlla min fadlihi ci ngeneen la allahuma inna nasaluka min fadlika al azim bi rahmatika ya arhamar rahimin اغفر لنا انصرنا ولا تنصر احدا علينا وزدنا ولا تنقصنا يا رحيم يا رحمن ان لا نك يالا كان مسمو دنج علما دي اجي قم بكل شيء تي لب لف ولكلن نيال كيب ko xamne nek na fi rek jaal na def nañ ko mawaliya ay mbir yo xamne daf koy mengo moo koy not moo ko moom ci tarika ba maanaam waxtu woo xam ne am na ku fi wàññeekoo ba dem ba way ji boromam lam fi bàyyi am na ñeneen ñoo xam ne ñooy mawaliya ñooy méngoo mbir ma gannaawam li ma taraka ci la bàyyi na ko alwalidaani ñaari way jur ya wala na ak way jege ña wala dina ak ñëpp ñi nga xam ne àqadat fasoo fasu woon na ay maanukum seeni kóolëre loolu nag ulamaaw tafsir dañu wax ne wala dina àqadat ay maanukum folli nañ ko ndax daf ne woon ñooñu faatuhum jox leen leen nasiibahum seen ab cër moo di ne <clears throat> bi ñu gàddaayee ñëw medina dañu daan jël di def muwaaxaat bay na sahaba, ñee ay tumuranke lañ ñu fii ñii ñoo fi dëkk mu seetu kenn ko tumuranke ku nekk jógee màkk mu ne diw mooy sa doomi ndey def muwaaxaat ba sahaba yépp jeex muhaajiroon ak lan saar léegi nag ci jamono booba ku xas nekk saax nekk sa mbokk léegi bu dee sax danga koy donn <laughs> loolu moo amoon waaye ba ayatul miraas yi ñëwee nag ñu folli loolu moo tax mu ne wala ji ñi nga xam ne àqadat fasu woon na aymaanukum seeni kóllëre rek seen diggante ñooñu faatuhum jox leen leen nasibahum seen cër inna laa yàlla kaana musumoo dañ shahidan di aji fekkee ala kulli shay lépp lëf rek ca kanamam lañ ko defoon fekke na ko <clears throat> léegi ma ngi dugg si ci biir kër gi kër gi góor fi nek ak jigen motax mu nek keur góor dong du tudd keur jigen dongit du tudd keur fokk góor nek fa jigen nek fa mu doora tudd guñ samp lola nak su amé comme ñaari bop ñoo fokk dina am bop bo xamné mom lañuy wax né mo mo jité ke jité nak modi di euh, ku góor ka koku la yalla def ci ga ak kaddu ga moo ko war a yore tax na ba ñoom ñaar waxtu wax doxee seen diggante ku góor ke ku jigéen ki booy atte seetlul rek bu fekkee ne lu ñuy laaj la mu ñu war koo joxe kon ku góor kee tooñ ndax moom loolu rek moo moom la fa nekkee ñuy laaj muy joxe rek <laughs> loolay mbiram waaye bu fekkee kilifteef ga la ak baat ba kon ku jigéen ki moo tooñ ndax moom it loolu rek la fa war a nekkee baal mu bàyyi defal mu def far suuf kee far kow kon nag joxe lu ñuy laaj te joxewuñ ko daal <coughs> bu taxee ñu xeex ku góor kaa tooñ moo bàyyi waroon a def waaye bu ñu sédd bu ñu xëccoo kilifteef gi xamal ne ku jigéen ki <coughs> moom itam moo tooñ jigéen nag alquran dafay wax ne ñaari mbir daal mooy am ci ñoom am na jigéen joo xam ne ju yiw la su jaamu yàlla jotee mu jaamu yàlla bu topp ndigalal jëkkëram jotee mu mu def ko bu fa jëkkëram nekkee mu déglu ko su génnee mu wattu alalam wattu boppam ngir jëkkëram loola moo ca néew waaye ko kaa ca baax moo tax yonent bi ne ki gën ci jigéen ñi xayru nisa allati iza nazarta ilayha sarratka wa iza amartaha ataatka wa in ghibta anha xafidatka fi malika wa nafsiha ki gën ci jigéen ñi mooy koo xam ne soo ko xoolee yow jëkkër ji melokaanam bégloo la soo ko digalee mu topp la soo fi nekkul mu wattu sa alal wattu boppam ngir yow waaye kooku mooy ki yiw ki mbiram ñaareel ba nag mooy ki nga xam ak njubat yi dafa nekk ci moom te aaya ji di ko junje léegi mooy ndaw si nga xam dafa soosente so wala fi xóot la moy ku mer ki nga xamne dafa mer dal di bëgg jël ay ndabam pour genn dem loolu lañuy wax ci wala so sent ki def loolu nag alquran def ne koku ni ngeen di mëna a ak mom modi ñetti mbir mbir mu jëk mi modi ne da nga koy waar ci yalla wan ka dëngee jëkkër ana man mbugal la ci yàlla yi tëkkoo yan duma moo koy xaar ëllëg bu fekkee loolu jariñ na te lu gën a bari du jariñ ndax ragal yàlla ga moo xóotul ci ñoom mu ne nga tong ko mu ne nga tong ko ci sab joxe wala nga tong ko ci say wax wala nga ber ko ci tër bu fekkee jariñ na bu fekke jeriñul nak alquran ne nga jël ab yar ndax legi dafa genn ci dayob nit ndax nit ku gëm yalla dañ koy war ci yalla mu jeriñ bu amut nga war ko ci li nga koy jox ak li koy defal mu jeriñ bu ñaar yoyu jëriñatut genn ci hududul insaniya nit dafa mbaame mu ne kon nga jël nak aw yet mu ne nga dóor ko dor yo xamne deret du genn waye ab yox du damm mu ne nga dor ko su nyentel def nga ñett yoy yep nak jeriñut ñentel ba moy na nga dem ci mbokkam ay mbokam tok say mbok tok mu tok nga tok ngeen wax jotaay bobale buñ ca waxee dëgg dana fa dana fa joge ñu defar ko mu bax wala ñu ci ne du bax mu yaqku ku nekk dem saw yoon waye boo deful noonu rek ñaaree da nga juum problème yi nga xam ne moo nuy jot nag ci kër gi ñun moo di ne duñ wax ñu gën a bari ci góor ñi suñ meree rek fase nañu képp koo xam ne su meree dal di fase loolu mooy ki nga xam ne balaa ëllëg fu ne mu wër lan moo ko daganalaat pour mu jot ci waaye bu fekkoon su meree dina jaar niñ ko wax balaa àgg foofu it mbokki ndaw si am ku ko ci yëg ñu wax amaan na duñu àgg foofu kon nag teggi gi ni ñu yàlla rëddal moo ñuy indil ay problème yu ñuy am buur ne arijaalu góor ña na ñoo nekk di way taxawee kilifteef ala nisaa yi ca kaw jigéen ña mane wax jooju ndem yàlla xas na ko wax te yàlla bind nit ku bëgg lu mooy lu mooy lu duhut loolu coowa yi ñëw rek waaye du sotti waxtu wu jigéen woote mooy moom ak kër wala day am góor cooway bari waaye du sotti mukk ndax ki bind nit moo ne nii lay mel arrijaalu qawaamuuna ala nisa moo taxit ña ko daq woote ci àddina boo demoon ci pays yi ko gën a woote naan góor ak jigéen ñooy yem ñoom it dañ koy wax waaye duñu ko def nga seet seeni école góor ñaay ëpp seeni borom xam-xam góor ñaay ëpp seen ab gouvernement góor góor ñaay ëpp seen assemblée nationale góor ñaay ëpp te ñoom ñoo koy wootee sottee gu fa waaye du ma sa sotti fenn arijaalu qawaamuuna ala nisaa kii bind nit moo ko wax li ko waral yàlla ne bi ma faddala na ci la na laahu yàlla ci ci ñenn ña dafa am ay mazaya wal wal yu nekk ci te nekkul ci wa bi ma anfaqu ak kàttan yi la ñuy minam min seeni alal ndax itam nag law farat naa ñooy yem kon bu ñuy ngoro ku nekk dafa war a wut téeméeri ñu dajale ko defaree kër gi waaye comme kii mooy maye mooy joxe mooy wodd xam nga ne kon wa bi ma anfaqu min fa saalihaatu jigéen ju yiw ja moom day ñoom day qaanitaatun way toroxlu lañ way topp lañu xaafidaatun way wattu lañu lil xay bi ci fàddug seen jëkkër bi ma xaafida ci la wattu na leen ko laaw yàlla wallaati jigéen ñi nga xam ne nag taxaafuuna yéen a ngi ragal nu shuzahunna seen ak sosent na waar leen leen bu ngeen ragalee ñaaw ak jikkoom na ngeen ko waar ci yàlla <coughs> jëriñut wax na ngeen tongu leen fil madaaji ci tër jëriñut na dóor leen leen ndax am fa in ataanakum bu ñu leen toppee ca bu jëkk ba nga waar mu topp bul àgg ci tongu nga waar topput nga tongu mu topp bul àgg ci dóor loolu mooy fa in ataanakum buñ leen toppee ci benn étape falaata bu bu leen sàkkooti nag alihin ci ñoom sabilan weneen yoon ca étape ba ca topp ina laa nag yàlla kaana musumoo dañu aliman di aji xam kabiran di aji màgg su ko defee étape bu jëkk mu nangu nga bàyyi nanguwut bu ñaareel mu nangu nga bàyyi door àgg ci bu ñetteel kon nag fala tabxu bu leen sàkku alayhina sabila naw ci yoon inna laa yàlla kaanamu mu sumoo dañu aliyan di aji kawee kaweewut nag ci béréb kabiran di aji màgg màggewul aw yaramit wayen xiftum su ngeen ragalee nag shiqaaqa baynihima wuuteg seen diggante ndaw si neen moom du ci dem mukk ku góor ki it ne mayit kon bu yeboon a dem kon balaa ngeen a taqalikoo fa baasoo yónni leen xakaman arbit muy kuy atte min alihi bokk ca mbokki góor ga wa xakaman ak keneen kuy atte min aliha ñu bokk ca mbokki ku jigéen ka ñaari délégation yi boobu yooyu ak teewaayu ku góor ke ku jigéen ka suñ waxee in yurida ñoom ñaari délégation yi bu ñu bëggee islaan ak defer aman na yuwaffiqi na dëppale laaw yàlla baynuma seen diggante ndax yi ne laa yàlla kaana musumoo dañu aliman daaji xam mbiri sey xabiran di yi dañ kump kon nag doomu aadama yàllaa ngi delloo si nit ci boppam nit bu dellu ci boppam dal di xam boromam te nit bu xamee boromam dal koy jaamu te kuy jaamu yàlla keneen ak leneen du ca bokk mépp mbir gépp jaamu yàlla guñ boole keneen ak leneen yàlla soxla wut yàlla nee na yonent bi ci xadisul qudsi waxal nit ñi ne ana agna shuraka ñépp ñaar ñu bokk mbir man yàlla maa gën a doylu koo ma booleel bàyyee naa kook bu fekkee danga ne yàlla ak diw yàlla ne bàyyee naa diw de bokkatuma yàlla ak nangam yàlla ne nangam rek waaye man bokkatuma koo ma booleel rek bàyyee naa kook ndax man yàlla yow yow jaam bi bi ma lay binde kenn fekkewul bu ma lay rey kenn du ci man dara waxtu woo yëgee man yàlla sama manki ba balaa maa def dara keneen bokk ca bàyyee naa kooku rek ñu seet nag fan la ñuy mujj loolu mooy fondement wu lislaam mooy fondement wu imaan pas-pas boobu su xasee dëgër lu ci toppati dal di baax waaye su pas-pas boobu yàqoo loo indeeti du baax mu ngi mel ni tabax bu amul fondation lu mu gudd gudd day daanu shirku bu xasee am ci nit ki benn jàmm yàlla du baaxati ndax dafay màbb lépp li nga xam ne defoon nga ko ñaareel ba ku ci am ay wayjur jur gannaaw borom bi la bind way jur wi nga gën a war a gën a fonk ci kum mën a doonati muy ndey ja muy baay ja ñun dañuy safaane mbir ma bari na ci ñun ñoo xam ne am nañ keneen wala ñeneen ñoo xam ne ñoo leen gënal seen ndey wala ñoo leen gënal seen baay ñooñu dañoo juum te it bàyyi nañ nag li alquran waxoon gannaaw yàlla ay way jur moo ca topp ñetteel ba moo dina ay jege ñaale mooy ay rakk ki mag ki doomi baay ak doomu nijaay ak bàjj nag jege ñooñ ñooñu ñooy ñooy usra mooy nekk famille ñooñu nga ci tofal ci rafetal sa diggante ak ñoom gannaaw ga nga door a dem ci say dëkk ndoor loolu alquran di wax naan waabudullaha jaamu leen yàlla wala tushriku bu leen bokkaale bi ak yàlla seen dara wa ixsaanan def leen ak rafetal bil waalidayni ci ñaari way juri wa bisil qurba ak boromi jege ci ak bokk wal yataama ki jirim wal masaakina ki miskin wal jaari ak dëkkandoor zil qurba kay borom ak jege ci bokk ak deret wal jaari ak dëkkandoor boo xam ne aljanu bi ci wàll la da ngeen den di kër wa saaxibi ak ki ànd ak yow bil jan bi ci tukki mi ñetti dëkkandoor la kii da ngeen a bokk ci deret kii da ngeen a den kër kii da ngeen bokk fu ngeen di liggéeyee wala am tukki ñetti mbo ñetti dëkkandoor yooyu am wam ni sabil ak aji muranke mooy ñu naan doomu yoon mooy koo xam ne ku baax la ci fam dëkk waaye fii nag da muranke wa ma malakat na ngeen def njekit ci lepp lu mom nako ko aymaanukum seen ndey jor moy jam yi ngeen mom di leen liggéeyloo léegi nag ba yeksi ci kep ku nek ci sa suuf nga yelif ko dang ko wara a yërëm hadith di wax nan yërëm len ñi ci seen suuf ki len far ko itam mu yalla mu yërëm len inna laa nag yàlla fay man kana ku nek namu mukhtalan di rëy rëy lu waakoon fa xuuran ku daa ji wo ci xam-xam wala ci am-am wala ci man-man ñooña ñoy ñan xam nga ne nay li yaakar ne moy baña joxe alal naya ngi ci baña joxe daraja ji bu fekke ne sa daraja do ci xejal ken fo nek duñ fa tudde ken sak bax kenen baxut sak man kenen manut yewit ku nay nga motax yalla ne من كان مختالا فخورا رك تك من الذين ما ينغا خمن يبخلونا دانيي ناي دانيي ناي سي درجه بوغو ньо تولو كين ويامرون ني ديغل ناس نينيا بالبخل تي ناي ويكتمون ني نبيت ما تاهم لا لين كو الله من فضله تي غوغو غنين خيتو ناي لا موي نيت كيغا خمن امنا لوكو يالا باخي وايي فوكو فك دو لكم دو فنجي du feeñit ci waxam suy wax toujours ma ngay deedeeloo ko jàmbat di nëbb nga lu yàlla def na ko ci moom looloy wa yaktumuuna maa aataahum allahu min fadli wa atadnaa xare nañ xare nañ lil kaafirina ñeel yéeféri yi aadaban mbugal moo xam ne muhinan aji doyadal la mu leen ana lu fu indi baatu kaafirin dafa njëkkoon a wax ku réy réylu kuy pug mu teg ca nay waaye ba tey baata bi yëfari jibut waaye bi mu waxee kii dee deelu nga ne li ko yàlla jox mu di ko nëbb di jàmbatu kooka dafa weddi xéewal ak yàlla kafara bi niami moo tax mu ne waa lil kafirina adaban muhina walladina ñi nga xam ne yunfiquuna ñi ngay joxe am wàllum seen alal ria annaasi ngir njistal ak nit ñi kooku itam beneen gàkk la nayul gaa dana joxe waaye dafa bëgg nit ñi xam ne koy def bu fekkee loolaay ay na ja ndax walaa yuminuuna ba ñuy joxe gëmuñu billaay ci yàlla wala bil yow mi gëmuñ bés bi it al bu daay ji mujj ñooña nag kon ndem gëmuñu yàlla dañoo bëgg a njistalu seytaane mooy seen xarit moo leen tax a def kon seytaane lañu ñu àndal alquran ne kon wa man yakkun ku nekk na seytaan xarinan daa ji lënkoo lawoog moom fa saa kon kooku ñaaw na bon na xarinan ci àndaaleem léegi wa ma alayhim ana lan mo len don war ci métit ak coono suñ joxe won sen alal ngir yàlla suñ ñàkkoon reey rëy rëylu suñu santoon xewlu yàlla wa maza alayhim lan mo len don war ci coono ci lolu law amanu buñ defon yoy yëpp te gëm yàlla billahi wal yawmil akhir wa anfaqo ñu dundale mi ma razaqahum ci la wër sëgal ne ko law yàlla wa kana musul dañ allah yàlla aliman de aji xam biim ci ñoom dar seen dar réeru ko lépp itam xam na ko kon nag su fekkee ne nit ki lu mu def te jublu ci yàlla yàlla dana ko ko fay ndax maandute yàlla maandute ci moom la yem yàlla dafa maandu ba yowmal qiyaam dafay tëral benn baskil boo xam ne boo ci tegoon lu gën a woyof kawar yitam mu dal kay génne bascule bu sensible bo xamné du bay dara taxna ba képp ku fa fekk dara yowmal qiyam na la wóor na yaa ko fi indi rek moo tax mu ne inna laa yàlla moom laa yadlimu du tooñ misqaala darratin kem ba zarra zarra mooy pepp gaz atomique gaz bi ñuy liggéeyee bombe atomique yi gaz googu moo tudd zarra moo tax nga dégg ñu naan alqanabilu darriya zarra moomu nga xam ne gaz la gaz li muy sew-sew ab peppam moo gën a sew lu tol noonu boo ko tegee ci baskilu yàlla ci lu baax ak lu bon mu génne ko wayin takku bu nekkee la fa teg xasanatan di lu rafet yàlla dafa baax ba yu daifa mu fulande ko ñaar ca ko jox la fay la wayooti mu jox mi la dunu fa moom yàlla ajaran yool aziman bu daa ji màgg lutax mu ne min la dun ladunhu boo defee benn ñu fay la fukk yow defa fa woon fukk kon juróom-ñeent ya fan la jóge ci yàlla moo tax mu ne min la dun ladunhu fa kayf yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa woo abdullah ibne mas'ud ne ko kaay jàngal ma alquran mu ne ko waaw ibnu mas'ud ne ko mooy yonente bi man maay ñëw jàngal alquran nga di ma déglu te ci yow lañ ko wàcce woon mu ne ma waaye dama ko bëgg dégg ci weneen lammiñ wudul sama lammiñ muy jàng may dégg Ibnu Mas'ud di jàng dal di tàmbali suratu nisa di jàng di jàng di jàng ba yëgsi ci fa kayfa is ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haulaai shahida inti bi dal jooy ne ko xasbuka al aan xasbuka ñaari bëtam di sotti mu ne doy na doy na ana lan lañ ko wax ba mu ne doy na yàlla def na ko fa kay fa kaw téef yow muhammad boo xamoon isa ji inaa bés bu ñu indee bi ka ci yow min kulli ummatin bépp xeet ñoo indi leen bi shahidin ku leen di seede xeet bu nekk seen yonente jiitu ñëw ne yàlla yaa ma yónni woon ci ñii ñu ngi léegi ma waxoon waxoon naa leen ko am na ci ñoom ñu koy seede mooy ñu jàngoon laaj leen ñu ngi ni le yow it nag wa ji naa ñu indi bi ka ci yow ala ci ñii kàccoor yii ñu indi la yiw itam shahidan ngay seede ñii ak lépp li ñu defoon yonent bi ne ko doy na doy na ndax loolu dina metti yow may sin keroog yawaddu dina mébét la dina ña nga xam ne kafaroo weddi woon nañ wax ji waa asawte ñu daan mooy rasula ndigal li jóge ci yonent bi danañu tiit xam mbugal ma leen di xaar bay mébét naan lawtu sawwa donte caterpillar bi ñëwoon na yemale ñu maasale ñu al ardog suuf sa biim ak ñoom danañu tiit bay mébét bu ñu yemale woon suuf seeg ñoom rek maasale leen ñu ñàkk nekk ñuy dekk ñu leen di laaj ñuy jëm ci mbugal mi ak keroog ku defon lu banit da ko wax ndax nit a gën xam bopam ku nekk yaay netti saw yaram li nga doon def alquran wala yaktumuna du ñu mën rek dañ koy waxat bayina lolu mu ñew ci sarti julli ak itam di jox di jox permission ku mënula japp mu tim sarti julli moy lap ci hadas lap ci qabas sutural sa jublu qibla waaye laab googu ci ndox lay doon léeg-léeg ndox du am wala léeg-léeg ndox dana am waaye doo ci mën a jot wala mën nga ca jot waaye yaram wérul ba mën koy jëfandikoo kon nooy def mu ne loolu tiim lay doon alxajaaz yi ulamaaw tafsir yépp dëpp nañ ci ne abdurahman ibnu awuf masoon na togg benn ñam ku amoon alal la ci saxaaba yi ndiwaale ay ay naan booba sàngara xaraamagul ndiwaale sàngara soo xam ne ci raisin lañ ko liggéey saaba yi ñëw lekk dal di naan ba mandi julik timis ñëw ñu jiital ali ibn abi talib mu ngi naan qul yaa ayuha alkaafiruun laa abudu ma taabuduun wa nahnu naabudu ma taabuduun dal di jaxase maanaaye ya ak yépp mu yàq ko alquran wàcce aaya ji nag di wan ne daal waxaguma sàngara xaraam na de waaye bu ngeen mandeetee daal bu leen julli loolu mooy benn sabab bi Aïcha radiallahu anha ci benn xare bu ñuy tuddee bani mustaliq danañ ko tuddee bani mustaliq danañ ko tuddee bani muraysi' غزوة بني مريسع ab qissaam gudd na lool ndax Muraysi' moo doon teen ba Mustaliq moo du giir ak yahud ga moo tax am ñaari tur ya Yonent bi dem na ci ñoom takk leen gaw seen dëkk ba ak ndomb ñaar fukki fan ak lu kenn ci ñoom du kenn du wallu si ba ñu sonn lool ba ñu sonnee nag ñu ne léegi yabal benn waay buy négocier ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee nag am ku ne ko léegi da ngeen di seet ci saaba yi ku ngeen wóolu rek ngeen ne nangu ngeen ab atteem yenent bi ne waaw nangu naa loolu ku ngeen wóolu ci saaba yi rek ngeen wàcc ci atteem lu mu àtt ci yéen ñu def ko fofa nak ñu xol sa'd ibn abi waqas comme saadu walan sar la wa madina la ñoo bokkoon dekk ak ñu mu wor ko ne mu ne man mom dal wor na yalla, ndax lim wax waji ci ishara ci junju ne ko saadu mom rendi lay atté dal wor na loola qissam ngi ci kanam mu dem ci jakk ji yew fa bopam ne fek bakkar bobu dañut wala yalla bal ko ndax wor na dotul jog fofu julit ni non lañ melone ba nga xamé né nak ñi ngay ñibbisi ci ghazwat bani mustalit te yahud yoy yépp ñu japp leen indi leen génne leen ci marché banu qainu qa'in ray leen ñom ñépp ba mu jé ba ñuy jeex tak ba seen kilifa ga keroog bañ koy ray dañ ne waxal sa mujjëg wax mu né limay mujjë wax dal mo di ah, yahud yalla mo dogal ci ñoom bésëb dee tey ba ñoom ñëpp ñu war a dee waaye du tax nag lin façon ci kiig lin ko weddi ak liñ ko noonoo dara du ci wàññeeku ñu dëgër lañu woon ca loola ba ñuy ñibbisi nag ba ñu ñëwee ba ca yoon wa ñu ne dañuy noppalu ñu daldi tànt seen tant ya ku nekk nekk ci xëymaam Aïcha radiallahu anha moo demoon ci gazo boobule ñu wàccee tegu jagaajal gi tegu jagaajal teg la boo xam ne day ànd ak tàntam noonu la nekkee woon ci kaw gélém gi ñu wàcceel ko ko mu dëkk ci ba mu toogee moom Aïcha ba jëmmi jamono mu soxla faji aajo mu génn ba mu génnee ab caqam di fa dagg ci yoon wi léegi nag am na xew-xew yu ci yu bari yu xew foofale benn baa ngay ñëw ci xadisul ki dañ koy xaar ba foofu ndax foofu la gën a matee ci suratu noor incha allah waaye li ñu soxla fii mooy ba caq ba daggee te bëgg nañoo gont muy wër ne des na ay per yenent bi ñëw di ko wërlee per ya saaba yépp ñëw di wër per ya ñu far fa nekk ba tusubaar jot julli ñu seen ndox ma jeex na amatuñu nag lu ñu jàppee ba Babacar ñëw jël yatam wa jam ko Aïcha ci biir bi ne ko ndaw si lee yaa bari solo tëj nga fi nit ñi ndax tëj nga yonent bi te fekk mu ngi toog nit ñi duñu dem ba su ndox jeex na naaj bi lakk nañu amuñu ndox julli jot na nan la ñuy def nag comme Babacar mooy baayam moom ñeme na ko aaya bi dal di wàcc nag ne bu julli jotatee wala ngeen jóge gannaaw kër ga wala ngeen am janaba wala ngeen laal jigéen te ndox amut na ngeen tiim loolu nag kenn ku naan asid ibnul xadayr dal di ñëw ba ci bergene Aïcha mu taxaw ci bunt bi daal di nekkoo ko maa ak sara barakatukum yaa la yàlla xéewal yéen a bari barke ndax yéen xat-xat bu ngeen nekk yàlla def ci indil nit ñi ak xéewal ma nazala biki ya aïcha amrun takrahinihi illa jaala allahu taala fihi lil muslimina faraja ndax it sa dogub caq geeg sa coono bii moo indi yàlla daganal jël ay loxo dër ko ci suuf raay ci xar kanam ak i loxo mu tollook njàpp loolu ma wàccee tim la buur di wax naan yaa ayuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran laa taqrabu bu leen jegee salaata julli wa antum te yéen sukaara yéen a ngi nekk di way màndi na ngeen jékki xata ba màndi jeex ba ngeen mën a xam maa na li ngeen di wax wala junuban bu leen nekkitam itam bu la du caagan ngeen nekk ñu am janaba di julli illaa abiri sabil lu may koo xam ne dafa doon dox ci yoon di tukki te amul ndox lii kum dal bu mu julli xataa taxtasiloo lu may bata ngeen sangoo léegi nag wa in kuntum ndem nekk ngeen marda di way feebar aw ala safarin wala ngeen nekk cim tukki aw jaa wala dikk ahadun kenn min minkum ci yéen min al gaiti bàyyee ko ca fajug aajo aw laamastum walla ngeen laalante an nisaa ak jigéen falam tajidu te amu leen maa ndox fa tim saidan pak tayyiban budaji budaya ji fam bu ngeen di tim nang nan la na ngeen masa masa moy ray bi kum sen xarkanam di kum ak sen loxo loxo mu ngi yem ci fi ñuy montor jëm ci baram yi loolu moy yeddu ñu jamu ko ci aidi dii moy farata ci tim nga ray ko mo xarkanam ba la ci dess ay sunna la sunna ko yendi ina laa nag yàlla kaana mu sumoo dañ afuwan di aji bale gafuran di aji jéggale bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci yahud yi ak seen jëf ja alam tara ne ndax xamuloo ila la jëm ci ñi nga xam ne oto joxeef na leen nasiban ab cër minal kitaab ci téere bi yashtaroona ñuy jëndee adalaalata réer ga ak loola wa yuridoona ñu bëggit an tadullu ngeen réer asabila yoon wa loolu la bëgg mooy yëhoot yooyu nga xam ne xamoon nañu alquran xamoon nañu lépp loo xam ne nekk nu ci alquran ñu soppi ko ngir weddi aka ak ak noone wallaahu yàlla aalamu moo xam bi aadaayikum seen i noon wa kafa doy billaahi ci yàlla waliyan di aji méngoo seen mbir wa kafa doy na billaahi yàlla baa bi toujours zayid la nasi nasiran di aji dimbali leen wa min alladina bokk na ci ñi nga xam ne haadu ñoo yëhootu ñoom day ñooy ñi nga xam ne yuxarrifuuna ñooy soppi alkalima baat ya an mawaadicihi ci bérébam ba di fa def leneen wa yaquluuna nga naan samicnaa dégg nañ waaye waa asaynaa dégg nañ tigi li muy wax waaye duñ ko def wasma déggal gayra musmain waaye nekkoo ku ñu forcé ci déglu gi ak topp gi déggal waaye kenn forcé wuñ la wa raacina ñoom ñoo doon wax kalimatu raacina ba li nga xam ne moom lañ jàngoon ca gannaaw muy raaci naaja ñu ngi koy wax nag lay yan ñu ngay nooyal si na alsinatihim ci seenu lammiñ ndax raaci naa ci làkku yahud firi woon nan lu muy tekki boo ñoom nag baat boobu ñoom ñoo ko doon wax wa taanan dañoo bëgg a dëbb mooy jam ak critiquer fi diini ci diine walaw annahum donte naka ñoom xaaloo waxoon nañ ne sami'naa dégg nan waa taanaa topp nañ wasma déggal wan zur naa te nga muñal ñu la ñàkk wax raaci naa xanaa ñoo wax wan naa la kaana nekk loolu xayran di jigéen la hum ñeel leen waaqoom mooy gën a jub walakin waaye laanahum rëbbana leen noonu lañ koy fire ci luxa waaye waxoon naa ne ci biir téere bi da nga koy wattandiku da ngay wattandiku baat yooyu ndax euh, euh, ci tawxiid yàlla du mel noonu yàlla comme du rëbb da nga naan laanahumullahu soril na leen buur bi ak yërmande fiil jéeg faayil jéeg xool mi yépp ngay bokk firi laanahumullahu soril na leen buur bi ci yërmande bi kufrihim ngir seen kéefér falaa yuminuuna du ñu gëm illaa qalilan lu mooy la tuuti léegi ma ngi ci di xupp ñi nga xam ne li alquran ji di wax dañ koo teg ay waxu caaxaan ak i mboosóor moo xam ci àllul kitaab la wala ci nun ñooñu lay wax ne kaay leen ngeen gëm alquran ji balaa ba sa ñëw bés boo xam ne su ñëwee dañuy mar maral ab xarkanam koo xam ne dafa doon weddi ba du amati bët du am bakkan du am gémmiñ du am nopp balaa moo dugg safara kaay leen gëm balaañ leen a alag ni ñu alagoon yahuud ya doon napp ca gaaw ba ndaxit gëm balaañ laa alag di la buggal moo gën te itam arab dafay wax ne al aqilu man wuida bi xeyri nit ko am xel mooy koo xam ne danga waaroo ca keneen waaye bul toog bay waar say moroom ci loolu mufassiroona yi dañ ko daan def aw léeb di wane ne ko am xel day gis mbir mu waaru ca balaa yegsi ci moom mu ne gaynde bi gaynde googu ak tille gi ak kunde gi rëbb nañu rey nañu genn kéwél gaynde ne kon nag kunda yow na nga séddale ñun ñett la nga séddale ñu kéwél gi kunda daal di ko dagg ñetti xaaj yem képp bi man bi tille bi gaynde gaynde ne ko ah nii nga ko séddalee mu ne waaw gaynde ne ko farit ku ndëddee bopp bi dagg dal fale mu wequ ba sedd gaynde ne tilla demal yow nga sedd la tilla daal di boole yépp jël bopp ba teg ko fale ne ko pare naa mu ne an sab cër mu ne bopp bi doy na ma ndax man gune laa yaay mag mu ne ko kaw téef yaa mën a séddale ma foo ko jàngee mu ne boppi waajale mu nekkoon ko am xel da ngay waaru ci sa morom balaa ngaa waaru say morom mu la alquran nekkoon nag kaay leen waaru ci ñiñ defoon nii balaañ leen a def nii le yaa ayyuha alladina uutu ey yéen ñi nga xam ne joxeef na leen alkitaaba téere mu yëwat ak nasaraan aaminu gëm leen bi ma naa ci li ñu wàccee ci yenent bi le te it nag nekkul lu tumuranke ndax musaddiqan mu ngi nekk di aji dëggal li ma maakum li nekkoon fi yéen téere bi ngeen amoon bii da koy dëggal na ngeen ko def léegi min qabli an natmis balaa ñoo marmaral wujuwan ay xarkanam fanaru daa nu delloo ko ala adbaariha ya ca ya gannaaw yàllaa ngi yore ya xeet yi mbugal yowmal qiyaam yoo xam ne wal iyaadu billah doy na dana ñoo xam dañuy masa seen xarkanam du amati dara ñu door a dugg safara am ñoo xam ne dañuy sampi bopp bi sampaat ko ci mu jublu ca gannaaw loolooy fanarudduha ala adbariya aw nalaanhum wala ñu rëbba leen sori leen suñ sunu yërmande kama laat na naka ñu rëbbe woon asxaaba sabti waa gaawo ba te loolu jàngoon nañ ko ci gannaaw wa kaana mësul dañu amrullaahi ndigalal yàlla mafulan lu ñuy def la imma tawan wa imma karhan waaye ndigalal yàlla moom fokk rek lu ñuy def la ku defut fii danga nga defi karxan borom bi tabaraka wa taala bàyyi na loolu mu ngi bëgg a wane teraangam moom yàlla ak njëggalam nan la toll waaye njëggalal yàlla li muy rey rey am na fu mu yem am na loo xam ne yàlla du ca maslaa du ca kaf du ca fo du ko bale itam te loola moo nu gën a jaaxal ndax moo gën a bari moo di bokkaale bokkul ci li yàlla di bale waxtu woo xamee ne sa xol bi yàlla bind ci sa biir gëm na kàttanal qaharu ci man-man ab ku duhut yàlla fa yowmal qiyam wala lépp loo xam ne ci sifaatullaahi la yépp melokaan yàlla jagoo donte génn ci turam la te loolu moom moo ko jagoo walla ren di tudd aw turam wala fakkatalu tudd aw turam ngir xettaliku nga xam ne moom rekk ko jagoo yooyu loo ci jox keneen wala nga jox ko leneen rek yàlla nee na sàkkal nga ma moroom nee na loolu moom mënuma ko ba maa ne loolu lu jaadu la danaay faral di misaal ne jabar ji nga indi ci kër gi tey bindoo ko moomoo ko juroo ko jëndoo ko itam teraanga tax mu dikk fi waxtuum la yemalee geneen góor rek nga tukkal àddina léegi wala mu génn fa te yow nag bindoo ko sax <laughs> fa kay fa nag yàlla mi la bind fu kenn fekkewut te bu lay jël kenn du ci man dara nga bëgg ko yemalee keneen wala sax léeg keneen gën ko ci yow moo tax yàlla ne baax na nekk leen ci waaye may lii dinaa ko wax te duma ko weddiwaat inna laa yàlla de laa yaxfiru du bale an yushraka ñuy bokkaale bi yeeg moom loolu moom alquran nee na du ko bale aaya bi amul naasix amul mansuux takraar ak taakiid lay am ba téere bi jeex nee na moom loolu du ko bale te loolu jeex na wa yaxfiru dana bale nag ma duna zalika lu duhut loolu liman yashaaw ñeel ku ko neex li nga xam ne ku ko neex mu baal ku ko neex du ko baal mooy yenn ya waaye lii moom kenn soobatu ko ca xanaa lu mooy ko génn rek wa man yushrik bokkaale na billaay ci yàlla kooku yàlla ne na du ko bale lu tax mu ne ndax kooku xadif tara duudal na duudal na yàlla luy duudal na yàlla nañ jël misaal ci lu gën a tuuti na la pëkk sel léegi nga tudda leneen wala nga tudda keneen loo wax foofa danga wax ne bu jàqare ñëwee kooka moo ko mën a xettali waaye du yàlla yow yaa wax loolu na nga ñëw yàlla ne ilzaamu maa laa yalzam bi usul di wax mooy waral sa bopp lu la waruloon te mooy géñ billaahi danaa def wala duma def lu la waruloon nga waral ko sa bopp lu la waroon nga teggi ko ngir ngéñ yàlla ne kooku sama tur rekk la nga tudda turu keneen nag def ca loola nañu rendi nga tudd turu keneen yàlla ne ne isxaaqu ruux yi génnee ab bakkan ab ruuxu kooku sama tur rekk la waaye turu keneen yellowu ko yow itam nga dem tudd fa keneen nañu lekk wala nañu naan nga seet bismillaahi ni mu tollu nga jël turu keneen booy lekk tàmbalee ko wala booy naan nga tàmbalee ko nañu jël xéewal ni mu neexee te mu nekk ci loxol yàlla daal nga sant ca keneen ku duwut yàlla yàlla ne kon nag te buñ seetoon ci dëgg-dëgg ku seet ci sa bopp danga xam ne ka nga sant ca xéewal ka nga tudd ca ngéñ ka nga tudd ci xettaliku xam nga ne manu ko manu ko bi mu fi nekkee ndax bu ngeen soree du la yëg rawatina bi mu fi nekkut moo tax yàlla nekkoon ku ko def faqad iftara duudal na duut mooy teg lu fa nekkut isman bakkaar aziman bu mag duwul ne dafa toggoo bakkaar waaye daf ko duudal yàlla ndax dangaa duudal yàlla ne am na kem bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci alul kitaab ak pay ga nar na leen a xaar ëllëg ngir natijatu seen jëf ju ñaaw ji nga xam ne danañ koy jëfandikoo ikrimata ibn bi jaal dafa wax ne kenn ci saaba yi la dafa wax ne kaab ibnul ashraf benn mag la woon ci magu yahud yi mu ne kaab dafa mos a dem ca kufaaru quraysh ba mu demee màkk ni leen léegi daal dama bëgg nu def benn pacte juboo ci mel ni mbir daal wara a songi yonent bi xeex ak moom ndax ñun am na nañu téere xam nañ li baax ak lu bon yéen amuleen téere kon nañ def pacte ñu juboo dal ci moom ah ñu ne waaw yow day comme yéen àllul kitaab ngeen te ñun amuñu benn téere ñun Quraysh dañ leen a wóoluwut yéen yahud ndax li tax wóoluwuñ leen mooy ñun amunub téere ay xiram la ñuy jaamu suñu yàlla yaa ngi fii di mat ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukk te suñu yàlla yooyu yéen àllul kitaab da ngeen leen a weddi kon nag bu nuy def ak yéen ab pacte di songi keneen ko am téere ni yéen wóoluwuñ leen xanaa lu mooy lii rek nga siñel ñu lu wóor signal wóor moo di ne su ñaari xiram yu mag yii benn muy asaafa wala nailata ñu ñëw ba ci kenn ci ñoom nga julli nga julli ca gannaaw xiram ya su jootal leen kaab ibnul ashraf naafiq la saay-saay la foo dee yahud la woon ju mën a jàng mu daldi ñëw su jootal ñaari xiram yooyu ba pare Quraysh ne ko nakam léegi nak waxal atel li nu nek ni di jaamu mo gën wala li Muhammad nek di jaamu kum dul gis lu ci gën waxal nu noo ngi nii ku mak bi bésab acc no lay jox ndox nga naan ci sam-sam nu noy odd kaaba gi noy loj suñuy gëlëm nek mu tawif nit ñëpp li ci sani mu tawif ku dem mak da ngay dal ci kër nit mu dala jox lek ak naan ngay war gëlëmam dem arafat ba dikkate do fay dara loola mo fa amone loolu karaamal arabiya la woon mu ne mu ne ñun ñooy def loolu kon nag ñun ñoo gën wala li muhammad nekk moo gën kaab ibnul ashraf ne yéen a gën yéen a gën a jub alquran ne alam tara ndax xamu ila ledin jëm ci ñi nga xam ne yu zakkuuna ña ngay sellal anfusahum seen bopp bal lu fi nekk allahu yàlla yu zakki mom rek moy selal man yasha ku ko neex te àllaaxira nak wala yudlamuna defu togn len fatilan lu tolni fatil fatil moy mooy gu weex gi tëdd ci xuru salu tàndarma ba moo tëdd fattiil alquran da fay misal ci ci tàndarma ñetti mbir yu xébu yo xamne kenn du ko lekkaale amul ben njëriñ ñam lawu la yusminu la yughni muy fatil ak qitmir ak naqir loola dafa xebu ci tandarma fatil moy redd wi boom gu weex gi ci amul benn njëriñ du nekk ci tandarma jépp ci najwa bi lay faral di nekk mooy ji nga xam ne tooyut naka noonu xitmiir itam ci tandarma boobu lay nekk mooy mbubb mu weex mi nga xam day faral di muur tandarma ju tooyul jooju kooku itam laa yus mënu wala yuqi ni amul benn njëriñ naqiir nag soo walbatee saal ba ca gannaaw fa muy saxee boo ko jiyee loola mooy naqiir yàlla nag yu xeebu yooyu la koy tuddee mu ne alaxira duñ tooñ kenn lu toll ni sattil alquran ne undur seetal nag kay fa nu na ni ñuy duudalee alkaziba ay nar alallaay ci yàlla wakkafa doy na bi ci yàlla ci ci duudal gi isman bàkkaar mu beneen bu day ji biir mu ñëw nag ci kaab ibnul ashraf ak képp kuy mel noonu mooy képp koo xam ne masla ak mudahana ak mudaarante da laa yóbbu ci jaamu xiram ak shirku ngir masla la wala xatarul mu jaama la tubaab bi wax danger de la courtoisie képp koo xam ne loolu moo la yóbbu ci nga jaamu xiram nga def shirku yaa ngi mel ni kaab ibnul ashraf mi yàlla di wax naan alam tara ndax xamu ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ootoo joxeef na leen nasiban ab cër minal kitaab bi ci xam-xamub téere bi ñu teg lañ xamoon fale di masla ba yuminu nañu dem di gëm bil jibti wa taaxuuti yi ci ibliis ak i xiram wa yaqulu na ña nga naan lilladina ñeel ñi nga xam ne kafaro weddi nañ naan leen haawulaay ñi day ahda ñoo gën a jub min alladina ci ñi nga xam ne amanu gëm nañ sabileen aw yoon loolu ñoo ko wax ulaayika ñooñu la dina mooy ñi nga xam ne laanahumullahu soril na leen buur bi yërmande wa man yalaan ku soril na ko laahu yàlla yërmandeem ak koo yàqu na falante ji da fekkati la la wañeel ko ci yowmal qiyam na siran ku koy teree walis mbugalam yàlla waaw lu leen dugal ci loolu am lahum ndax boog ñeel na leen nasibun cër mulki ci nguur gi xëy na boog yàlla dafa wax ne maa ngi yéen noo bokk nguur gi ba tax lu leen neex ñu def ko fa isa su fekkee loolu amoon na dey dana ñu nay ba laayu tuna du ñu jox naas nit ñi naqiiran lu toll ni bëtt bëtti gannaaw saalu tàndarma am yax su moo ndax dañoo añaane naas nit ñi moo tax ñu wax loolu ala ma aataahum ci la jox na leen laaw yàlla min fadlihi ci ngëneelam ci yenintaam ci xam-xamam ci am amoom ndax loolu kañaan a tax ñu wax loolu su fekkee kañaan gi ñu kañaan moo leen jot ba bu ñu yónnee ab yónent bu bokk ci bani Israël tax ñu mere ko bu weddi ko na ngeen xam ne man yàlla ma joxoon Ibrahima ak keneen ak keneen ma jox kii moo tax mu ne fekkee kañaan la faqad naa joxoon nañ aala Ibrahim alkitaaba téere ba wal xikmata xam-xam buy jëriñ wa aateynaahum jox nañ leen mulkan mu nguur aziman guddaay ji mag fa minhum nekk na ci sëti ibrahim man amana ku gëm na bii ci loolu waaye minhum nekk na ci sadiya man saddaku dëddu na anhu walis loolu wa kafa doy na bi jahannama safara ba bi zayd la sairan nekk di aw lakk sair dawe woon nañu wax ne benn tur la ci turu safara am na juróom tur yu ñuy tuddee safara am na ñu wax ne ay tur la ñu ne ay bunta la ñu ne ay kër la jahannama ci la bokk sair ci la bokk بني وكفى بجهنم سعيرا يعني كفى بجهنم يكون مصلا لهم جهنم دنا داي نك سين نيار ولا جهنم داي داي نك سعير تي نيوم مو نك مترادفات ولا بوك مو نك بوي فيري ما مرام جهنم سعير حطم لظه saqara jahim hawiya juróom-ñaari tur yooyu mooy juróom-ñaari turi safara wala juróom-ñaari kër wala juróom-ñaari bunt bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci payug kéefër payug weddi ak payug gëm yàlla su fekkee ne ñee dañ leen a jaaral safara wante yaa ngi naan dugg safara rek war nga noo waxal nan la yàlla dugale safara yàlla ne bu dara desul lu mooy maa ngi alag ki nga xam ne weddi woon na sama téere daawun ma jaamu ki nga xam ne sàkkaloon na ma moroom yemale woon na ma ak ñeneen ñaag yeneen ya mu ne kooku mbugal mu metti laa koy laa koy bugal naka nee na dama koy jox yaram woo xam ne wu doy waar la ci rëy dana ëpp ñey su ko defee ñu nooyal der wa ba mel ni deru yaramu liir mu ne buñ ko dugalee safara bu safara wa ñoré derwa wa ndax xam nga né eh, lolu ñi jang ulum ñokay xam metitu lak lakk ci der wi lay nek metitu gañ gaañ ci der wi lay nek ci la xasaasiya bi ba bu der wi ko won sax ci biir metit wa dotu dem dayo taxna ba der la ñuy lakk bu deru yaram wi ñoré ko ci safara sa ba jeex tak ñu genné ko joxat ko der wu bees bàyyee xol ndax mu mos metit motax bur buur bi ne inna ladina naka ñi nga xamne ne kafaroo weddi nañ bi ayat na ci suñu alquran ji sawfa nuslihim xal se nañ leen a jaaral naaran aw safara jaarute liwo woo kullama nadijat bépp bu ñoré juloduhum sen yi sen derwa badalnahum ñu wuutalal leen julodan aw der xayraha wu may wi lakkon lutax li yazuqu ngir ñu mëna mos al azab mbugal ma inna laa yàlla kaane musud dañ azizan daaji not ci kàttanam xakiman daaji xara walladina ñi nga xam ne amono gëm nañ nag ñoom wa amiloo te ñu jëf assaalihaati farate yeeg naafile yi ñooñu nag sa nudxiluhum danan dugal leen jannatin aljanna yoo xam ne tajri day daw min taxtiha ci suufam al anhaaru yol yi yent xaalidina ñu di way sax fiya foofale abadan cay mooy loo xam ne amul fu muy yem fa kalimatul asali ak kalimatul abadi ci ulamaawu tasawuf wala al aarifuuna yi dañuy wax ne ñaari baat yooyu ci xam-xamu yàlla soo ko firee dana am ñu la xam ñu la dégg waaye dana bari ñu la du dégg ndax yàlla mu ngi jógee ci asal mu ngi jëm ci abat lépp lu am te yàlla ci li am la bokk ndax mooy cosaani li am dafay bàyyeekoo ci asal waaye ma nga jëm ci abat waaye yàlla nag boo ko toppee ndax ñun suñu asal wujud la woon waaye suñu abat dañ ñu fay yóbbu waaye yàlla nag moom asalam kenn sàkku ko te abadam du jeex soo ko toppee dafay mel ni dangay jóge asal jëm abat moom yàlla boo demee ba abat yeetu yàlla nga fekk ko muy asal nga yaakaaroon ne abat abat la waaye boo demee ci yàlla da ngay fekk abat di asal asal di abat mu ngi melni bu auto jaaron fi ba nga gis mu def ben tracé bo ñëwee ci misal tracé auto bu fi jaar ba pare la loy abat ak asal boko fekki wu do xam fu mu jëm do xam fu mu la mel abadam moy asal asalam moy abat loola la arifoona yi di wax lahum ñal na leen fiiha ci aljanna jooju mana bu ci geej gele la nuy waxe tay Euh, ñun ñëpp demoon nan ba sori ji te buñ sori jee duñ dellu si yàlla ngi ñuy delloo si indi kiiraay ndax léegi leneen amutoon indi na leneen moo tax mu ne walahum fiha azwaajun am nañ fay jabar nga am jabar dal di am leneen ñëw nga dikkaat nekk nit mutaxaratun yu ñu laabal ci euh, xaydoog nifaas wa nudxiluhum dana dugal ñooñu zillan ay ker yoo xam ne dalilan yu lëw la yoo xam ne daal du am ay ceñeer te du jeex bay na loolu ma ngi ñëw ci ana ban politique la lislaam waxoon ne na ko nit ñuy jëfandikoo ci seen dundinu àddina ak seeni atte politik boobu moo di ne wóor bañ a wuruj kenn du la ger fexe ba maandoo sooy attee mu nekk dëgg nga topp borom bi tabaraka wa taala ci wàllu diineem nga topp yonent bi ci lim jege jëlee fa yàlla su mbir ñëwee bu lëntee xamuñ li cay dëgg ñu seetlu ci alquran wax buñ ko gisul ñu seetlu ci xadis wax loolu mooy dustuurul muslimin constitution bi jullit ñi war a jaar mooy loolu li ko tax a wàcc euh, mu fassiroon yi dañuy netti li ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog xare fatxu Makka ba mu ñëwee dafa tawaf ba pare daal di laaj usman ibn Mas'un wala usman Ousmane ibnu Talhat ibnu dar ne ko jox ma ciabi kaaba gi dama bëgg yek ci kaw koku ne ko déedéet ñun kay nekkun ci sa diine te itam nak sa ñëw fi ah katan la rek yaanu man waye bëgg nga taxaw fi waye kaaba gi duma la jox ciabi ji Seydina Ali ibnu Abi Talib ibnu Abdul Muttalib dal di ñëw ne ko indi caabi ji Ousmane bañ ñu songo ñoom ñaar bëre Alioune daane ko weñ loxo bi nangu caabi ji ñëw tijji ko yonent bi dugg ci biir kaaba gi ba génn Ali jël caabi ji nag denc yonent bi ne ko doo ko delloo mu ne ko delloo bi noonu yàlla kay dootul jot ci ji caabi caabi kaaba kay léegi ci ñu lay nekk alquran wàcc ne ko yàlla ne nañ na ngeen matal kóolare da nga ko abboon caabi nan ko delloo buñ ko ca tooñ ñu jël caabi ji ne ko alquran moo nu wax ne ku def amaana na nga ko delloo ci seeni borom sa caabee ngi nii mu ne seen diine wax loola gannaaw bi ngeen xamee ne mën naa ci ñàkk jotiti ndax yéen a ëpp doole ñu ah, mu ne seen diine jub na danaa ci bokk tanaati ay kóolare ila aliha jëm ci seen borom wa ida xakamtum su ngeen di attee bay na naa si diggante nit ñi an ku moo ngeen atte bil adli ci inna laa yàlla nicma baax na li nga xam ne yaidukum dana waar leen bii ci loolu inna laa yàlla moomu kaana musul dañ samian di aji dégg basaran di aji xam yaa ayuha alladina amano ey yéen gaañi gama alquran atiu toppaleen laa yàlla wa atiu te ngeen roy arasolo yonente bi wa ulil amri ak ñi nga xam ne ñoo yore mbiram addina ma minkum ci yéen donte dañoo dëngit na ngeen topp ñu yore àddina xam nga ñàkk topp kii yàlla teg àddina ci loxoom lu muy indi lu suñ magu daara waxoon rek danga nga dem rek ba soo bàqate ne bàcc loolu foofu rek lay jëm ak yow ndax ki yore àddina waxtu woo ko safaanee walla nga been ko mën na la caa topp ba dootoo tala jaamu yàlla kon nag suñ la bàyyee sa jàkk bàyyee la sa julli bàyyee la sa téere bàyyee la sa alquran booye boo yewit di ci àddina nga toppalenti ndax ñu bàyyi la si diine moo tax alquran ne atiu llah wa atiu rasul wa ulil amri minkum waaye nag bu dara desul lu mooy attee ci mbiram sharia fa in tanazaatum bu ngeen xëccoo kii ne nangam dagan na kii ne daganut fi cheyin ci dara fa rudduhu na ngeen ko delloo ilallaahi jëm ci alquran war rasuli ngeen delloo ko ci sunna ñaar yooyu rek ci la attey jógee dal di wér in kuntum ndem nekk ngeen tuminuna diggam billaahi ci yàlla wal yow mi ak bés alaaxiri bu daay ji mujj zalika atte woo li yàlla wax day xayrun moo gën waa axsanu moo gën rafet itam tawilan ci mpiri ndax atte ci boppam mbir mu doy waar la ndax lépp lu ñu atte fii danañ ko attewaat su fekkee yow nag li nga attee bokk nag ni yàllay attee te mën nga atte ba bakkan des ca mën ngaa atte ba alal des ca mën nga atte ba ay jam-jam ñëw ca mën nga atte ba nit loru ca te loolu bokkut ak ni yàlla attee kon yow bu yowmal qiyaamee dañ lay laaj li nga atte woon diw bañ def ko nii ana nga ko teg ndax alquran a ko waxam déet su fekkee alquran waxu ko rek kon xam nga lay ñëw ci saare ca kanam wa man lam yaxkum bi ma anzalallah bay na ñooñu mu ngi ñëw ci naafeq yi ak seen jëf li ko tax a wàcc mooy benn naafeq bu tuddoon Bushar Bushar naafiq la woon moom bokk ci yëwut yi waaye bokk ci julit ñi wa ndax julit la bu ak gëmam rafetut moom lañ tuddee bu Bushar nag xuloog benn yahud ba ñu jàppante léegi nag war nañoo dem ci ku leen àtte yahud bi ne ko yahud bi am dëgg ne ko nañ dem ci yonent bi mu àtte ñu ndax yoon yëpp ci yàlla la jëm naa naafiq bi ne ko déedéet nañ dem ca kilifa gi yowat ga kaab ibnul ashraf mu àtte ñu ba ñu waxee loola waa ji ne ko déedéet yeneen ti bee gën a jege man nangu naa fun fuñ neex àtte waaye kii gën a jege ñu dem ci yeneen bi yeneen bi ne yahut bi moo moom alal ji nañ ko ko jox ne waa ji yow boo sër yaa tooñ waa ji ne bii atte waxoon na la du ko nangu nañu dem ca keneen ka te waa jaa nga doon tuddoo ne julit la looloy naafiq alquran ne wa katirun mahum alam ndax xamoo léegi ladina jëm ci ñi nga xam ne yazaamuuna danañu wax ne dana ñu joortu ne annahum ñoom aamanoo gëm nañ wax nañ ne gëm nañ gaa waaye nifaaq moo ne ci ñoom gëm nañu bi maa woon la ci la wàcceef na ko ilayka jëm ci yow wa maa unzila la wàcceef na ko min qablika lu la jiitu muy téere yi jiitu woon ne na woon yépp la gëm léegi nag yuri doona ñu bëgg an yataxaakamoo ñuy atte wante ila taaxuuti ci iblis wa qad umiroo te digaleef na leen an yakfuroo ñu weddi bii ci taaxuut wa yuri doona di tey bëgg seytaan an yadallahum mu réeral leen dalaalan réer baidan gudaa ji sëri dëgg wa ida qiila ndem waxeef na lawum ñaan leen a taalaw kaay leen ilaa ma anzala allahu jëm ci la wàccee na ko yàlla wa ila rasuli ngeen jëm ci la wax na ko yonent bi raayta nga gis almunafiqina nafiq yi yasudduuna ña ngay fekk ña ngay fekk mooy tere an ci yow suduudan ay fekk mooy di tere kayfa kawtéef ida asabathum ndem jot na leen musibatun musiba na nga xam ne bi ma qadamat ña ngi ko jotee cëla la liggéey na ko ay di diyam seeni loxo su ma jaawoo ko ñu dikkal la nag yaxalifoona ñu ngay géñ billaay ci yàlla naan in arad naa den ñuy bëggu إلا إحسانا لما يرفتل وتوفيقنا كك دبلي تنجمي أولئك نيونيو الذين نيونيو قمني يعلم الله قمنا يلا ما في قلوبهم لأنك جسين قل تنفاق فأعرض نغا ددو انوم تي نيوم وعيدوم وقل وخال لهم نيلن في انفسهم سن بوب قولا وخ بليغا جي جوت مانا لوي في انفسهم قولا بليغا موي نغ لن وخ ني يين اي نافق نين قول بليغ بون لاكو فك boo gëmee danga nga lool waaye soo weddee foog nga war caa mer loolooy xawlan baliixan wa ma arsalna mosuñoo yónni min rasulin benn yóninta ila li loolu lu ko tax a wàcc zubayr ibn al dafa xuloo benn waay ci leen saar dañoo digaloo ay tool ca sayaan ya zubayru toolam ci la sayaan gi nekk waa ji waa lan saar bi moo digaloog moom زبير نك دا فاي روت سي نوخمي ولا سي ديك بي بو روسي تولم با سوتال ليلك مو تي نوخمي واجي دو روسي ني نك نيو سي يننتي بي زبير خم nga ne doomu bàjjina yonent bi la alayhi salaatu ba ñu ñëwee ci kanam yenent bi yenent bi ne Zubayru boo te ci dex gi walla ci déeg bi wala ci teen bi ba sottal na nga bàyyi ndox ma bu ko tëj mu dem ca keneen ki itam mu roose loolu ci droit de l'homme la bokk bu fekkee ak dex dafa jaar ci sab dëkk sañoo koo tëj